dikk leen lekk avocado from Gambia barke Rasulullah piya yi ni muy nooyee te neex te baax si yaram te nit ñi duñ koy lekk fañ koy romb di jënd ganaar jënd ganaar yi Afrique yi ane fay rey ganaar yu nooy yi xam na fi sax romb piye yu nooy yi te neex te baax yaram piye baa ngi saf sukar te neex ba fa xuuteeg piye tubaab yu bon yi la piye Afrique yi bii Gàmbi la jógee woy maa ngi ratal neen yi sax ndax am maa xiif lekk lekkaguma tamit di jot na yéen nga ne su ma noonu su lekk-lekk yu baax seen xol bi fay dagg moo tax duñ koy tàppate maanaam avocado bi lekk ni xam nañ ne fay baax si yaram comédie may def di lekk yëpp xam nga ta duñ koy tàppate gisuñ ma may lekk pizza ak lekk yu bon ba fañ xañaanta bañ ma nag nen laa fry comme fry tubaab yi nañ koy defee bu mu xam diw gu bëri wéy mu ngi laa defee ñetti nen fry ko ak diw gu tuuti fry tubaab bi ak avocado bu ci def mburu de soo buggee wàññi yaram bu ci def mburu avocado bi jógee Afrique moo suma noon yi xañaane ma ko fa ma jaral fay fukki pound ak ñaar ci benn kilo ndax fonk suma yarami yi pour bañ am feebar mhm. <laughs> suma noonu yi ma koy xañaane nañ ko jënd nañ ko lijjanti jeepe yi indil leen ko <laughs> avocado yi Afrique nga jënd ko ba fay fukki pound ak ñaar mu ñëw fa ñu wax ne loolu fa seer ba pare di jënd xeesal bu bon ak jënd saag yu seer di ko rensale feñ wét man ma jënd lii ne pat di leen seetaan fay fukki paw nag ñaar ya mu ñëw ma ne pat mhm. lot of people in my society don't eat healthy this is avocado from Gambia you buy from Gambia and you pay pound per kilo for the JP to bring it. One kilo, 12 pounds. They're going to say, oh, that's expensive. But it's not expensive to buy bleaching cream. It's not expensive to buy bags and long wigs and shoes and stupid stuff. That's not expensive. But good food is expensive. Okay. No problem. You do that. And I do this me. Me, I can spend all my pennies on good food. I'm telling you this. But when you're waiting for me to buy good handbag and good hair, expensive hair and handbag and bleaching cream and gold, you will not see me there. Hmm. <laughs> How am I going to have money for that? But I don't have money for this. Hence, I like eating. Then eat healthy then so I don't die. Mm-hmm. fenes that's how my haters are always like ooh this is expensive that is expensive when I tell you you have to add good avocado from Africa and you have to pay the JP to bring it. Oh, the good avocado is expensive to bring it here. per kilo for avocado. Oh my God. To bring it here, per kilo. Just one kilo is good enough. And it's going last you for a couple of days. You and your family, if they're going <clears throat> to have one kilo of healthy avocado in your system. You don't want what do you want bleaching cream long hair unhealthy food unhealthy unhealthy chicken nice handbag nice this nice gold <laughs> see how they laugh at me that I'm mad that's how I laugh at them that they're mad <laughs> for doing that I swear I think that's madness <laughs> I genuinely those things are madness when you cannot invest inside your soul but you can invest on the outside just the outside alone for long legs and whatever people can see, you know. <laughs> I swear. <laughs> it's ridiculous. <laughs> Are you guys hearing me? ma ñëw wax doon wasi si xolof tapote leen doon wax si xolof si hàngale mooy nit ñi nga xam ne su ma leen waxee ne ngay jënd lifin bu baax bi Gàmbi pia picc bi la picc bi suma noon la ma ñëw ñu suuli ko wala su ma waxee ni ñu ne ngay jënd piem mooy li ma doon lekk noon avocado mooy lii lii Gàmbi la jógee ok soo ko jëlee Gàmbi ñu jëndal la ko jox ko jeepe yi jeepe yi nga fay fukki pound ak ñaar ci benn kilo bala yenn yi fukk ak juróom lañ lay fayee ko ci benn kilo dégg nga ko nga jënd benn kilo boobu ñu indil la ko day nekk ay ñetti doom yu rëy wala ñeent wala nga jaxase ko yeneen bagage daal xam ñaari kilo wala ñetti bagage for exemple ok buy nga jënd ay avocado jënd ay kekumba jënd limon loo mënti jënd bagaas yi organique yu baax from Afrique bu ñetti kilo la baax na wala ñaar jar na ko de ñu jëndal la ko jox ko jeepee jeepee indi la ko nga fay xame ko di ko lekk mu dimbale sa wér-gu-yaram ngi ci dëkk tubaab yi nga ne nii nga xam ne amul naaj te sa yaram yi warta ci dëkk bu amul naaj nit ku ñuul nga ba pare xamul lekk yu baax dafa bëri stress bitim réew fa bëri stress nga war a xam yu baax yooyu nga ne loolu fa seer benn kilo fukki paaw nag ñaar ci lekk rek ay lifin nu nu ñuy waxee lii ci français euh, pie lii nu tudd ci français lii lii nu tudd ci français ci Sénégal kafe gi fa tuuru bi may ñëw ignore ko lii num tudd who knows tudd si français avocat ah avocat la tudd sénégalais yaa ngi may xool ne patt nag surtout góor ñu si butu ñi may xool nag seen jikko ji may xeex lañ may bañee avocat ah avocat waa avocat xaw ndaw turu fan yi ñun avocado lañ koy wax si ci àngale avocat dag de man may foog ne loolu looya la looya du noonu lañ ko waxee ci français woy mu ngi taw taw baa ngi jógaat gi nga ko finde nii mu ngi niir ba ñuul kukk nag mu ngi wis wisal barke Rasuul laa mu ngi wis wisal tamaa bëgg a tëdd ci naaj ci suuf si tuuti way xaaral ma gaaw tëdd wala moo taw ma jël ci suuf euh, lifin bi tuuti garaawan tuuti bala maa sangu ji woy simila <coughs> dégg nga ko léegi soo leen nee jëndal ay avocado yu baax yu jógee Afrique waaye buñ jënd bu ñor bi ba nooy nañ jënd boo xam ne ñorul bu baax man mi noonu lañ ma defal suma jar jarbaab noonu la may defal dafay xonq coy saf suukar neex boo koy lekk ngay xam ne fa wuutee yu tubaab yu bon yi moos ñu engrais ko ba ba du saf dara ak a nëbb ka defi yëf boo ko jëndee mu nëbb bàyyi dal ko wala du saf dara yii fa xonq ta neex ta saf suukar ta baax si yaram jar na ko benn kilo bi fukki paaw nag ñaar ñu indil la ko bu dee Angleterre fa seer mbir surtout fu ma dëkk nii wala ñeen ñi fukk ak juróom la ñuy wax lool seer na ba jéggi dayoo waaye jar na ko de xam nga lu tax yow or yi ngay jënd ak cuub yeeg bagage yu seer yeeg dàll yeeg lu ne ay oto yu seer ak montoor ak lu ne pour wane hu ne may diw wéro loolu sa yaram wi du ko wàññi dara lool ci kaw rek lay ne du jëriñ sa yaram wi dara fii rek lay yem ci kaw kaw yaram wi bu ko indilu feebar kay lii dugg ci biir yaram wi nag nga war cee dugal lekk yu baax yooyu ndax nga am fan de wér yaram nga ne ngay sànni loolu tëb ci kaw di defar di décorer ci kaw kon yow ngaa naaf fekk buggo sa yaram wi laaj ko sa yaram wi ndax bugg nga décorer ci kaw walla ci biit laaj ko sa yuur gi ne ko ndax ngaa bëgguma di la xeesal ci kaw aka di la solal ay or wala di la jox ay nebe ak lekk yu baax ak yi ami xolof di wax ci ci sa lekk ko mu dugg ci yow boo bugg laaj ko sa yuur gi bu dee dana la mën a tontu. yuur yee waroon di waa yuur yi du ngeen xeexu di wax du ngeen jóg di mbéj seeni seeni waram di wax yuur gi nga xam ne kaasi sàngara yi borom di yónnee noonu bu ko yónnee ba sonn noppali ko du tax naan ko <laughs> gi nga xam ne kaasi sàngara yi borom di yónnee noonu bu ko yónnee ba sonn noppali du tax nit naan ko <laughs> tuuru ci yoon bi may ñëw waaye tuuru ma ko indiwaale ci gannaaw fii ak suma ndékki suma lekk gi gis ngeen avocado boobu ak nen yi moom laa lekk soo ba tey lekku ma yaram yi boobu ngeen wàññeeku taw baa ngi nii di gën a taw xam naa bu ëppee ma dem sangu ji te génn fii yaram yi soo buggee wàññeeku ngay wàññi ay mburu ay pasta suukar su bëri maanaam café gi def naa ci kuddu gu ndaw ak genn wàlli suukar waaye su ma paree nii du ma di naan juus juices you know juice yu am suukar yi wala nangam nangam basaa buy suukar nangam nangam déedéet mais continuer nii rek toog man naa xam nag su ma buggee lu am suukar wala bugg a lekk kabaa ma lekk ndax kabaa bi ma koy jaay te ma koy lekk man sama bopp ku ko jëndul ma lekk yëpp yu xoox yi nag moom benn si des boo xam ne ñaar fukki pound la ndax boobu beneen jigéen waxoon ma ngëbal ko ko te ñëwut beneen jigéen i Gambien ñëwut ma bind ko xëyiwut ma te moom moo tere ma jaay ko fi ne nii pare naa pour jaay ko ko ko jëndul nag fi mu ne nii boobu tam ma koy lekk boobu moo des suñu xooliwut yi ci des euh, lu beneen bi ci des mooy yu nga xam ne fañ leen togg leen. Mhm. kabaa bi xam na suukar waaye suukar si ëpput comme yeneen nit ñi ni ñu koy defee ba pare yow bu fekkee ne nag buñ xooliwut bi nga jënd bu la neexee nga def ci suukar su xem wala def ci xorom rek. waaye maanaam bàyyi xel ñaata suukar ngay lekk si bés bi maanaam tey su ma naanee kafe gi def ci benn kuddo genn wàll ngay xalaat juus bu dee nga koy naan ay juus yi xamal ne suukar si fii lay xem suukar su xem nii mooy nekk ci juus yi suukar su xem nii taxawal ma seet lu muy wax ne ah fay woon mu ne fay dëkkandoor yooyu ban bin lañ moom suma dëkkandoor tubaab la fay won naar yooyu naar yooyu fañ fi toxu si xees fa leen di won ban bin lañ moom mu ne léegi naar yi xam jikko xam nañ ko sax gis nañ ko jaayam dorogam bi nit ñuy jaabante jënd dorog mu di ko tux ci building bi yëpp kare kereb ma doon xuloog moom sax naar yi fañ doon ree kontaan ba ma naan ko jaaykati dorog buñ suuli bi nga do ci xàngale naar yi yëpp di reene pat nit ñëpp di ree xam nañ ko di waaye ba tey may tuxaabal ko building bi la jaay dorogam mi waa allo your number bind ma fii ci kaw fay taw de tamaa maa war a génn dem jëli xaale bi ma ni fa xam beneen jigéen bi ma yónnee westan yi noonu ku jënd bagage jënd ci mbubbi cuub yi may so jaay noonu mbub mi ànd malaan gi noonu fa xam jigéen ju ci jënd suy den la ne yónnee ma xaale bi Western Union démb ma dem jëli ko paxaab naar ba ne ma Western Union ba fa càng duy dox xaw ma système bi lan lan ah ay ne dana dox tey tey goor gi ma bind góor ak sénégalais gi duggoon si live bi démb dafa bugg a jënd moo jënd nii tey moo ma yónnee xaalis bi noonu Ria téeméeri euro war a jënd xooxe ne ba daa yeeg bagage yu bëri ma war ko koo paagal ak posté bi yëpp moo ànd ak bu ma war koo posté waaye may njëkk a jël xaalis ba jot ci soog a posté nit ñi la seen bagage yi mu leer ma ne jot naa ci xaalis bi. tamaa war a jóg léegi sangu ji dem jëli xaalis ba su ma si jotee soog a ñëw lëmas ko jox ko aadi mu dem posté ko waaye buy taw nii ah mu ngi taw de barki Rasuul laay mu ngi taw taw bi fa rëyul waaye mu ngi taw nii ah buy tawit ma génn dem jëli xaalis bi may ñëw sangu ji te dem jëli ko looy doo xama lan yow age eh, I am 99 years old du ngeen tapoté vidéo bi su ma noonu yéen laajte ñaata at laa mooy leen juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent <laughs> déwén nag jàmm mu am téeméeri ah bëgg waan téeméeri at ah leen bi jaaw saxaat fii hmm. woy my grey beard is coming back again this grey beard is so evil always coming out when I pull it it comes again benn bii rek lay nekk nag bu bi jaaw di sax nag saa mu ko buddee wooy Oh my God, it's gone. Look at it. <gasps> Ooh, the effing gray Just now people asking how old I am and my gray beard is growing. léegi ngeen di laajte ñaata laa am sama sikkiñ bu weex bi di saxaat faam am benn kawar bu weex boo ne fii saa ma ko buddee mu ñëwaat kawar gu bon a bon a bon lu muy sax suma du dem ci góor ñi xam naa góor ñi may xasa tax xasa tax may xam ne ay sikkim yu weex ndi góor ñi may xeex seen jikko ji ñu wàllu ma seen sikkim yi ak seen kawar gu dagg gi soo yeboo <laughs> te suma bi jaaw yi ñu ngi nii faale huma leen my grey hair that people are always laughing at here is <laughs> the grey hair <laughs> I don't care you laugh at the grey one you can laugh at that one too and then you F yourself finish you effing piece of shit <coughs> I need to sawa yow bul ka xaw ma di wax bu ma di wax lan ami dama laa bëgg jërëjëf waay aleen suma sikkim yi yéen góor ñi ma bëgg yëpp amin suma béjaayu te suma sikkim bi fay sax sikkim bu weex ma di ko buddi de ko bëgg façon jabar jooj na ñëw yéex ak ñàkk giddëng romb kiric giddëng jeeg jikko ci sa wujj gaaru yaa ko tey li yomb na déedéet góor ñi góor ñi ku ci sa morom gaaru xaale ci ñàkk jabar yaa ko tey li yomb na yéex ak ñàkk giddëng romb kiric <laughs> góor ñi ku ci sa morom gaaru xaale yaa ko tey li yomb na giddëng yéex baa ngi nii di wut jëkkët du ngeen dikk wanteer ñeent ak taransu rek ma sëy si foo manti ne allo bi dikk leen ñeent ak taransu rek axaleen ndel beeg sikkim bu weex bi allo <laughs> ay ok <laughs> bañ a ok may wut jëkkër ma ay ok xaar ma ñoo dem solu sax sangu sol suma këpp bi dikk me ko bu <laughs> waay are you okay nag de aha ku bëgg jabar ji dikk leel bu bi jaaw bi hello <laughs> anybody want to marry this bull head <laughs> and this grey bull head wooy <laughs> anybody want to marry this grey bull head buy one get one free <laughs> I want my haters to be happy this, this afternoon. I want to make my haters happy this afternoon. Look at this gray bald head. Anybody want to marry this? Like a big snake lying on the grass. Hello, baby. It's the time, baby. La Zatem, la look at this, baby. La take a look at this, baby. La Zatem. barke Rasulullah caméra bi ni muy def sama leel bi melu ko ni muy def sama bopp bi nii la sama bopp bi mel like gis ngeen kawar gi fii kawar gi fa ñëw ba jege jëbi waaye jëbi li fi fa koy def mu gën a suri ah ni koy def caméra bi fay fen waaye gars yi ne leen di tàpp vidéo bi xam na ko wax ne waaw de ah somebody want to marry me they don't even care look at how this person is so nice they want to marry me look at my haters how they rather die than marrying me if you are a man all my haters keep effing every single day you wake up and never stop effing you fucking piece of shit no one cares about you guys to my fans thank you very much to people that want to marry me gis nga kii mu I love you ah kii baax na mu ne fa ma bëgg a faale wu ni ma noonu ah kii góor dëgg la dafa baax I will Okay, I will find one for you. I don't want you to find me anything if you don't want me yourself. Ah, you know, Aman. Okay, so, yeah, now. Look at my haters. If you are a man and you're my hater, if you're a woman, if you're a man, if you're a woman, never stop effing yourself. All my haters are so insane and they rather die than support my video. Why is as the changing my shopping? They're sending me notification now. They change one of my shopping to I don't know what, what, what. They always do that as the always. Your three of your shopping is changed to whatever. If you don't like it, give it back. I did as the shopping yesterday online for 50 pound. <clears throat> Especially fruit and stuff, heavy stuff, they can bring it. Oh, they're insane. They always change the shopping like... thank you jërëgeen jëf thank you thank you thank you to all my fans thank you thank you thank you so guys remember you can do this exercise too mm. oh my god look at my back it's all dirty but I'm gonna shower soon I don't care I'm grounding remember oh my god my knees are tired let me just relax them you are really beautiful thank you so much look at all my haters rather die than supporting my videos and they just insulting me and criticizing me and nyawaling me and bullying me. And they're so evil and jealous. I am free of Kamalan. Okay, thank you very much. Ami, really, you are natural beauty. Thank you. <laughs> <laughs> billahi, I'm beautiful. It's just the camera making me look <laughs> crazy, sometimes. What? Who is beautiful? Me. Look at my haters. Me, of course. Look how my haters are asking who is beautiful. <laughs> if you woman and if you man, if you woman and if you man, all my haters keep effing yourself, never stop effing yourself. Every day you wake up, eff yourself and continue to eff yourself and never stop effing yourself. Never, ever. Please, I'm begging you. Never stop effing yourself. To all my haters, never stop effing yourself. She's beautiful. Thank you very much. So beautiful. Thank you. You're right. You're very nice and telling the truth. Thank you very much. waa gisoo suma noonu dañ tàppate ba ma xayi ñu di ma xas rek bépp suma noonu suba soo xëyee nangamal sa bopp suba ba jant sa bul ma sa ba di nangam sa bopp góor wala jigéen góor jigéen góor jigéen suma noon bu jigéen suma noon bu góor suma noon bu jigéen suma noon bu góor thank you jërëgeen jëf waay ah jërëgeen jëf ah man suma kawar gi gisoo ko xaw ma kawar waaye faale ma ko ah ñu di ma ñaawal rek lii ñaaw na ma mel ni paa bu sibutu ñu ma xas rek naan maa moo kawar ah te yàlla def ma nii moos mu ngi jéem a sax tuuti sax de waaye danaa ko wataat de dañ may ne di xas rek moo ma di ko gedd di ko wat ah te su ma leen waxee dëgg ñu ne leen di xas xool leen lii rek mel ni paabu si butu ñoom ñoo may xas ba suma kawar gi gën a dagg nii taxaw ma jëkkër ñàkk jëkkër fay stress nit far na kawar gi boo ko xamul jëkkër yu bon yi nag a bëri mooy problème bi <coughs> booy daw ñàkk jëkkër bu jël góor gu bon waaye nit nga war a positif loolu dëgg la barke Rasuul laay kawar gaa ngi sax seetluwoo ko su ma noon yee dox xaj rek te mënuñ koo gis ñu ngi ci camera bi caméra du lay mën a woon yëpp fii nag moom duy gaaw a sax de côté bi côté ndeyjoor bi fa bon wooy gros gros gros <sighs> this right side is worse this other side is even better this right side look at all my enemy enemies my enemy my enemies are so happy videoing and screenshotting now all my enemies if you're a woman if you're a man if yourself you piece of thank you so much jërëgéen je xola kii naan dof laa ba ma dofee lu ma de sama bi may wone nit ñi xam ndel xam ne du ñëw kenn ma di leen motiver nga ne maa dof yow nga féeg te dox xaj kon the people that saying I'm mad for doing this I'm motivating people that don't have hair to know that they're not alone then if I'm mad then they're fake and hypocrite and they're bullies and they're seen kii xawma lan fotti kii xawma lan naabu daas bi xawma lan xawma loo bind so xawma ndax yaa ci photo boobu boo nee ci photo boobu ngaa gëma di sa moo tax nga def filtre boobu di la xonqal ba mel ni naar bu si butu te ku dem ngay xeesal te duma wax ak kuy xeesal kuy xeesal mooy ennemi boppam képp kuy diwoo dara pour mu xonq kooka mooy ennemi boppam fa njëkk a kuloori boppam bi xamul leneen lu muy bañ mu naqadi lu la xanaa lu dof lay bañ mu naqadi mooy number one bañi boppam bàyyee ko loola suba suñ xëyee xolam bi dog ne nit ku ñuul la te bëggul nit ku ñuul loolu rek doy na <clears throat> jarul muy bañ keneen muy naqari borom xeesalkat mënu maa xas lu ma wax may jàpp yéen golo yi lakk yi xeesal di ma xas surtout gune yi juddoo guddi seen baay laa man maa ngi xeex seen ndey yi bon yi ñu ak seen tataay yéen seen bopp sëy yu bon yi ngeen war a dund ëllëg bu ngeen ko dundul ba pare bu leen góor ñi làmbatuwul ba ruux ndu leen ba yàq leen te buñ du ngeen nekk ndaw ñu xas leen buñ leen deful loolu ooree di kay maa ngi xeex loolu ñaata xaat ngeen ñoo man ngeen di ñaawal xaj yu si butu yu ngeen doon surtout yéen gune yu gëma di seen bopp yi cagatoo ka mandé ka dorogo ka xalak seen bopp mënumaa wax ak yéen wéru leen te xamu leen xaduna bu leen xaduna yaree toogi leen duuma seen morom gën a dund métti taxaal ko xuti leen morom nag wax naa leen ko nag li ngeen di dox xaj you are natural exactly that's why they they hating on me and they so fake and insane Gambian wala sénégalais waa malilaa laa Mali laa jógee maa déggut Mali yan rek gën a xam joti Gambeeg Sénégal ak àllaaxira fu ma jógee baax na ami sa bopp bi <laughs> comme xaw ma lan bopp góor ma mel faale huma bopp bi nag yàlla fa ma may kanam gu rafet ma ni kanami gune <laughs> wuyul toos toos xaj boobu danaa ko wuyu <laughs> toos xaj bu sibbutu boobu hey lu toos wax ba nga naan huyul toos <laughs> fa ma defal vidéo wala lan toos xaj bu sibbutu boobu man danaa ràng ak moom I really like you thank you very much na ma defal vidéo suma noon ñi dem fa di tapote ma faale lool xaj bu sibutu boobu moos faale huma lool sa xolof yi neex na jërëjëf waay thank you jërëgeen jëf thank thank you thank you thank you thank you all my nice good fans <laughs> suma noon yi seen juróom ñaari nangam taan yi ngeen di bañ nag du man li ngeen di soxot te dundu métti te bon fureen xaw lan lan lan ah xaw ma lu ko de toos nee na yaa ko do dokoon xaw ma lii la wala doxaan foog naa doxaan la wax de mu ñëw ko kañ la lool mu jóg toos mu man maa ko doxaan fay fen kañ la ko wax fa ma defal vidéo la lan toos foo ma ko doxaanee toos man maa dugg si vidéo muy wax ne fa ma bugg laaj ko nit ñi ma suma wax ak moom si ron nag ci vidéo boobu rek laay moon ma dugg si vidéo am yàgg na muy wax ne fa bugg ci kanam nit ñi seetaan yëpp di wax ne maa ngi ci range bu dee xamoo jëkkat maa ngi si range live mu wax ko si vidéo man mu bugg toos man góor gu naq di dara te soxot te bañ jigéen rek laa bañ man li ma dund ci métier rek doy na man nga xam ne bët bu seet maa ngi xëy ak góor mel noonu man ma jël toos bugg ko loof ko pour mu takk ma kon ñu suuli ko walla toos su meloon ni fas wu sibbutu sax te moom kenn rek des ci góori àddina si tout fii ba Afrique barke Rasulullah du duma xam jëkkët am telling you des xam nga lan la parce que man maa miin téye suma bopp te duma ma laalante xat yëpp laalante duma jaral si ni ko noon bët bu seet maa ngi laalante ni ko noon temps bu may spend di wax ak yow nii sax maa ngi juutuñu di ma laal ci Angleterre Scotland gi ma dëkk nii rek ñaata nit ñoo bugg ma may juutuñu di ma laal te duma ko nangu di muñ <clears throat> di xaar ba am jëkkër xat yi yëpp maa miin loolu loolu boo ko miinee ngay dem ba siis si sa bopp nay si sa bopp sa xawray doo ko bugg a jox kenn surtout soo bokk ci jigéen ñi nga xam ne ngay foxee sa bopp di dugal ay bagage sa sa biir ni fin bi miinoo loolu ngay nag ngay tëj sa bopp ne kenn du fa dugg feekaw mu jëkkër ngay dem ba mel ni gune gu ndaw te ngay dem ba siis sa bopp caaxaan du tax nga joxe sa bopp bu dul mbiri you dara sax léegi jigéen ju dem ba miin loolu dem ba jàng gëm boppam xam valeur am dem ba jàng luy bu baax ak sëy bu bon te askan bi bëri sëy yu bon nga gis toos xaj boobu nga xam ne duhul rek fay xas jigéen ñi si ngelaw fa xuuteeg man nu may waxee moom xeet yëpp lay xas si ngelaw parce que fa xamee naqat xam chronique dépression bu ko gisee nga xam ne ci gune yiñ dóor tocco leen làmbatu leen sax ba seen àdduna na gune góor yooyu ñuy def loolu ci daara yeeg kër yeeg fu ne <clears throat> ku ko gis xam ne si ci ci fa dund loolu te du xeex loolu nag te loolu la war a xeex suba sum xëyee fa war di wax ci loolu li ko teg naqadam wi loolu la war a xeex mu deñ comme man ni may def man maa gore de may wax ne bu leen tëddoo gune yi bu leen dóor gune yi bu leen def nangam bu leen joxe sëy yu bon dugal leen gone yi école mboolem lu ma dund lu baaxul ma koy xeex pour mu dakk ci gune yi moom nag lim dund lu bon du koy wax sax li tax mu di presse du xeex loolu lim dund ba tax mu mel ni du xeex loolu fay tëb rek pël yi nii soose yi nii xolof yi nii gambien yi nii hee géwél yi nii mel ni xaj bu xaal ko man maay sëye góor gu mel noonu man góor ñu gën toos sax di ma topp du ma nangoo sëy ak ñoom waxuma laa toos góor ñu ko gën fuuf newuñ ci internet bi sax di liggéey wàcc du ma sëy ñoom di su may wax ak ñoom gis yenn wax yi ñi di ko def rek wala ma gis ne borom fay tux cigarette sax wala anything ma koy daw lool rek surtout taay wala yeneen du may seet xaalis du may seet xawra yu gudd du may seet dara nu ko doon seeyaat naa bu yàgg su borom xamee jabar sax bu tuxul deful dara may xalaat ndax jabaram dana nangu non xaaral ma jàpp si yàlla xaar keneen dafay nekk góor gu njool te xam li ngay wut ci góor yëpp nga xalaat mbaa jabaram dana nangu man maa gore de te mën a muñ parce que rasulilah du may def lu ma bugg rek topp ko de like a stupid idiot bu wig te dof ta soxot <laughs> kon nag moom ci boppam bu desoon ci àddina si sax du ma ko jël ok du ma ko jël toos fa ñaaw te sibbutu du ne moom fa dàq góori sénégalais fa foog ne moo dàq senegale sénégalais góori sénégalais ko dàq fuuf fa ñaaw te soxot te dund métit te sibbutut ba mel ni gaynde gu sibbutut te mën a fen nag tey fen boole si yow xanaa gisoo toos vidéo man toos man maa koy loof <laughs> bañuma ko yéenewu ma ko dara lu bon bot laay loo fi fóon ko nekk ak moom ni yàlla digg barke rasuulu laay su fekkee ma loof toos yàlla su ma génn tee su ma néeg camion ba gën a rëy de dege ma ba fa may dege ba ngeen di ma keef ci suuf si di ma keef laa ilaa illallah man Ami Olof loof toos xool ko sentir benn pusaab filin benn pusaab filin daw suma yaram wi ne toos laa loof bëgg koo foon lëng ko muy <laughs> danaa xaru barke rasulullaay su ngeen ma waxatee ne maa loof toos danaa dem wuti benn train xam nga train yi daw noonu otoraay ba gis ko taay suma live vidéo bi jomp si kanam barke rasulullaay suma doomi laa yërëm toos man ma loof ko su ma waxee loolu su ma noonu dinañ ma wax saa ne maa loof toos <laughs> waruma woon a wax loolu barke Rasulullaay su ngeen may wax ne maa loof toos danaa xaru toos su waxee ne man maa ko mbaraan fay nangam taan boppam fukki yoon ak juróom suba sum xëyee di ratt boppam ni béy wu si butu fen ca digg laay fam balaa dugg mu wax ko ci kanam nit ñi ñëpp ne ami xolof ndax xam nga jëkkër ma ne ko déedéet mu ne maa ngi ci rang maa ngi ci ranki bu dee xamoo jëkkër laaj ko ni ñi ca diggal laay fam ba la ko waxee woon koo xam ne gisoon na laay boobu dikkal dimbale ma wax sa dëgg te toos du may wax ak moom si ron te laay booba rek foog naa ñaari yoon laa duggoon si laay fam ndax xaw ma ñett xat yi muy laay ji waaye daf ma dee génne saa ma ñëwee di ko xas naan ko toos yaay jaam rek mu dindi ma moo tax ma noppaliku dem sax léegi fa may dindi saa wu ñëwee mu dindi ma nu ko doon saa ne ma dem xas ko waaye fa may dindi waaye man ma loof toos You in Sweden? No, I'm in UK. yéen su ma noon ngeen man mu rafet mi di love toos barke Rasulullah su ma loofee toos doo ñëw Dakar ma may la konoon kay ma dem Gambie Gambie la ëppee Sénégal bu afric boo fay dem xam jëkkër noo manti mel waaye nag ndax jëkkër jëkku baax laam bitim réew gee tax muy sëy ak yow taxawal ma mu sóoru sax xooli suma fan si sutura suma bopp <laughs> ooy <laughs> sutura suma bopp xooli suma fan si barke Rasulullah suma yenn fan si fañ may kool wax bay bugg a jooy ne mukk bu may génnee suma bopp i si vidéo surtout suma fans yi muuru ibaadu jigéen ñi saan ñoo bëgg <laughs> fa ñuy kool si ron wax ba bëgg a jooy kool ma Facebook wala Instagram wala bind ma fii TikTok jox ma sa numéro Ami dama laa bëgg surtout sénégalais su ma leen joxee ñu kool ma WhatsApp please Ami ngir yàlla deel muur sa bopp bi sutura sa bopp jigéen ju rafet nga waaye sa bopp bi boo koy dindi ndeysaan fañ miin muuru nag dindi bopp bi fa leen di naqadi ba ay gorenam ndeysaan fañ may ñaana ñaana ñaan ngay réew ndeysaan ma xam fans yu baax nag ma di leen fàtte di focus ci suma noon yi rek jërë ngeen jëf yéen suma fans yi at you I already look at myself you look at your put a mirror behind you bend down put your head between your leg and look the hell through the mirror you piece of kii mu ne naa xool sama bopp yow demal summeeku take all your clothes off put a big mirror behind you bend down bring your head between your legs and see yourself in the mirror like that <laughs> kii ne naa xool suma bopp <laughs> ma ko na summeeku dem na ko ndeyam juree teg seet bu mag ci gannaaw juutu dugal boppam bi si diggante tànkam yi te xool boppam ci seetu bi man gis naa suma bopp boppa pare xam naa ne maa rafet barke Rasulullah suma noon yii suma xàq dana leen dal yéen a tax nit ñi naan ma ngaa mën a xuloo saaw ma waxee nit ñi naan ma ngaa mën a xuloo te xool leen ni ngeen may <coughs> every time I talk, <laughs> people telling me you like to argue a lot. You know how to argue so much. You argue a lot. But take a look at how my haters are making me talk. They never focus on that. They're focusing on my response. Look at how my haters are watching this video. people. one single share one single share okay look at how they're not sending heart they're not sending gift they're not even sending heart, enough heart look at how they're insulting my entire generation just because i have a bald head people can even have cancer and have a bald head or just have bald head and they're african they don't even have hair a lot of them or their grandmothers and family and they always telling me i have a bald head and i'm this and my body this my and I I don't have money and I don't have husband and I am depressed because I was married young blah blah blah and all of my haters self themselves every morning and night and afternoon if they are a man if they are a woman if they are a man if they are a woman all the time to continue effing themselves and never stop effing themselves xamalu <clears throat> koog bind noonu maa ngi ñëw dem sangu guys I'm gonna go on guys na suma noonu yëpp nangam seen bopp suba suñ xëyee suba ba ngoon jigéen góor ok góor na nangam boppam jigéen nangam boppam wala nangam boppam you know wala moo xam bu si bugg góor suba suñ xëyee na te buñ ba nag ci fanaan ci xendu ci fanaan si malaaka yi bu ñu ñëw di rocc seen ruugi sax na fekk ngeen di ko def yéen suma noonu yëpp seen laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin laa ilaha illa anta subhanaka allah allahu illallahu laa ilaha illallah allah allahu illallahu laa ilaha illallah allah allahu illallahu laa ilaha illallah suma noonu suma leen toppee <laughs> barki Rasulullah maa war a ignore suma noonu comme ni ma ko faatu suma doom ji waxee su ma leen toppee du baax danaa julli ñaan yàlla ma ignore suma noonu yi su ma ñëwee ci téléphone bi sax du ma leen tuddati mais ni ku leen gisul rek def li may def wax li may wax. su may bolok bolok la ku ma you know tabaleen su ma ko deful du baax ngeen may def loo si bi ngeen ma bëgg a def saagakat xool leen ni ngeen may def. yéen ñaata ni fi ne yéenay seetaan ñetti téeméer nit benn single nit kott seddoo vidéo bi rusu leen tiitu leen ñetti téeméer nit di seetaan benn kott séddoo ko lu may wax ci vidéo ba dungeen ko séddoo te su ngeen demee si laalantekat yi ngeen di séddoo ñuy wax waxi laalante comme pornographie ngeen di séddoo su ngeen demee ci nit ñi ñi nga xam ne fañ leen di fay xaalis ñuy sosal nit ñi di leen kaa ba ñuy xaru ngeen di séddoo su ngeen demee si nit ñi saagande ngeen di séddoo sëriñ yi sax ku fi ngeen séddoo mu naan la nga ame ram nga ame jinne nga séddoo di tiital askan wi ci ngelaw <clears throat> mbooleem lu baaxul si ñun ngeen séddoo di lawlawe seen baaraam yi ni golo yu ngas <coughs> baaraam yi naafiq yi ñëw ci man nag mi nga xam ne maa ngi def comédie aka reeloo nit ñi aka wax yu xam fayda aka jàngale yu baax ngeen mel ni ay jonki yu sibbutu nag di kar yi lox du ngeen ko mën a tàppate ngir soxot ba pare naan ma amoo kawar ak ah, sa yaram wi ni pompe teer ak sa yaram wu bon wi sa forme bu bon bi amoo kawar ngaa dof de ngaa di presse ngaa sëyoon ba nga doxee gune moo tax nga dof nit kuñ tëddoo woon doxee gune moo loolu di abuse xalaat ko sax ba tey fu may jooyloo ngeen di ñaawal borom vidéo yi ngeen di def di wax mbiri laalante sax gune gu fa ñëw ne fañ ma tëddoo ma doxee gune du ngeen ko faale sax du ngeen wax si live bi sax ne yéen ñi tëddoo gune ba leen ko jo joxe message boobu boog nit ñi dégg ko ngeen di ignore borom continuer def li ngeen di def ngeen a soxot te dundu métti te xame jikkoy jaam yéen ñu bëri mu jigéen wala góor loolu mooy dëgg gi waxuma lii pour ngeen ba di ma ñaawal su neexee nga ne looloo tax may wax waaye Fatou lu mu danaa ko def sama doom ji mu ne naa focus di bàyyi suma noonu yi di leen igno danaa ko def danaa julli ñaan pour suma xel mi génn si suma noonu yi may focus rek <clears throat> te boo ngeen continuer di ma ñaawa di ma xooyee tur di ma jëw di ma buli ma ignore leen su yàggee danaa ko su ma ko deful ngeen may def saagakati ndey def ma keneen ngeen ne soxot da fag ne du may saaga ndey su ma meree bay jooyit loolu ngeen xañaan ngeen ne bëggu may saaga ndey ngeen record ko xamee ko su ma dee sax vidéo yi ne fi su ma sët yi di ko gis ngeen a soxot ta bañ ma su may comédie di fecc sax nataal ko di ma buli naan fa xam di presse su may lekk di comédie di leen reeroo ngeen di ma buli ndig dëgg gi may xeex waaye buñ leen di suuli sa danaa xeex dëgg gi seen mana njaaloo gi seen tëdd ak gune seen sàgganee jigéen ak gune seen duur nit surtout jigéen a gune seen jikkoy dorogu kiriminal sacc fen naa féq féeg bañ seen bopp bañ nit mboolem jikkooy jaam ju ne ci ñun danaa continuer di ko xeex su xeboo ngeen ray ma dëmm yi ngeen do waaw loolu moom bu leen leeree rek muy jàmm su may jooy sax may wax li may wax fomp suma ma ñuy continuer maa leen gën a dëgër bopp fuuf te suma dëgër bopp du ma ko def ci saaga ndey concours saaga ndey concours maa la dàq toroxal ni ngee non suñ feebar bi rek ci laa dëgër bopp di ko xeex ku may rendi di ma fees sax mais xeex suñ feebar bi waaye danañ leen suuli waaye danaa ko xeex de li ngeen di bonta bàjjo yéen nit ngeen ku leen fekk ngeen di protect suñ feebar bu bon bi li tax Afrique du développe ngeen di ko protect yéen na feqi jaam yi lu ngeen may xeexee lum da man nu ma def ba ngeen di ma xeex gis ñi ngeen war a xeex romb leen ñëw ci man dégg nga ami you need to try you need to cry ami you need to cry what do you mean ami you to cry dégg ko kii kooku mu ne ami ngaa war a jooy dégg nga ko xamoon na fay ñaawlanteem wala fa xamul ni muy bind dégg ngeen ko te yéen ñu bari jàngu leen jongu leen na yéen ak mën a xam xàmmeeku leen dee jor ak càmmooñ <coughs> ba pare diree ko nag su ma leen waxee ñoo leen jàng àngale sax ma leen di jàngal ngeen nay tas soxot du ngeen ko def ñaar fukki pound ak juróom ci weer bi semaine bu ne nga jàng benn yoon whatsapp wala zoom soo buggee def video call wala nga def normal call loolu rek du ngeen ko fay du ngeen ko jàng surtout yéen góor yi askan bi seen tur sax mënu leen koo bind si àngale te ngeen war a jàng àngale yéen ñi ne Amérique wala jos bëgg a ñëw Angleterre wala Amérique wala jos bëgg xam àngale you know sax fa baax. ngeen koy nay ta soxot te mën ngeen koo dugal xaale bi wéef ma jàngal leen waaye ngeen ne ci internet bi direeku du ngeen jàng dara lu dul fu laalante ne ngeen dem fu jëw ne ngeen dem fu saaga ndey ne ngeen dem fu sosal nit ne ngeen dem surtout ay góor di lacc lacc ni xar yu si butu góor ñu dund métti tax toskare rek ñooy def noonu góori nit yan ñooy def noonu ban askan la seen góor yi di wut vidéo saaga ndey vidéo waxi laalante vidéo sosal nit ba muy xaru góor ña ne fa di tapoter di ree di di di seetaan loolu di enjoy loolu daal mais ni jeeg bu confis dof góori askan Gambie ak Sénégal ñooy def loolu góori Afrique ñu dund métit ñu dóor leen tocco leen ñu jógee ci kër yi wujjee gaaru xaale ak métital nit màgg ci kër yi xaj yooyu dina ci kër yi ba tax ñu nekk ay xaj yu wincal seeni genn nag duñ duñ jëriñoo internet bi te duñ nangu keneen wax ci lu jëriñ nit fa tàng xol moo tax may waxee ni du ne maa bonde du ne maa xamadi da ngeen gàddu suma xamulee ne man xamadi huma seen suñ jikko ji moo may naqadi te bëgguma saaga barki rasulullah ñun ñooy suñ ennemi bopp xoolal lii rek daw ñëw toog ci tubaab yi fii duñ la bugg nga ne ci sedd bi te sa yaram wi xamul sedd Afrique nga nga war a ne ca tàngoor wa yàlla fo la def nga ñuul pour nga ne ci tàngoor wi ci naaj wi ak lekk yooyu ñu ànd ak sa yaram mi nga ne ci sedd bi ak seen lekk yu bon yi baaxul ci yow nit ku ñuul nga ne fi tubaab yi duñ la bugg maa suma dëkkandoo bi du la bo di la boolee xajam yeeg lu ne mu di ko de <clears throat> sa doom yi bu buñ jàngi jee Fatou wax nañ ko ci school fii ne ko sa couleur bi fa nuroog day du ma fo ak yow xawlal loolu rek Fatou mu ne lu ko dimbale mooy li ma du xeesal su ma doon xeesal du du mën a gëm boppam dem gune tubaab bi naan ko du ma mën a fo yow sa couleur bi fa nuroog day sa morom gune yi wax la loolu te fekk ñu ngi xees wër la yow kenn nga ñuul taxaw seen biit wala yow ñaari gune yu ñuul taxaw ñu di la wax loolu fii fa bari tubaab fam fuutee ak ay London ak yooyu school ba school bi dañ ay ñaari nit ñu ñetti surtout bu yàgg boobu loolu yàgg na bañ ko ko waxee woon fukki at mat na ko bu yàgg la <coughs> waaye duma ko mas a fàtte suma beneen xarit wax nañ ko doom bu yàggutu woon te gune ga fa xees pecc duur sax ku ñuul comme faatu <coughs> gune gu góor <coughs> dégg nga ko tubaab yi fii mag sax boo fii liggéey ñu di la réussir di la fitna xoolal tubaab ak xaj bi naa nit ku ñëw nii nga bu faat boobu loolu la ma doon wax aka di wax di wax ay yeneen ak yeneen aadi dégg ko ba aadi ne ma fañ war a tuxu kay wax nga dëgg kii baaxul dégg naa ko muy wax nangam ak nangam di waxtaan ak xaritam bi di ko wax te aadi duy jottali aadi ba mu juddoo te mosuma ne dégg naa nit wax nangam ba tubaab boobu du loolu rek la wax de moo tax aadi wax ma ko de mu ne aadi fu ko dégg mu ne stitch get stitch stitch stitch sneak cynique gestique mooy koo xam ne fay fay dugg si mbiri nit fay fay gaañu mu ne tax ma ne man ma ne ko ngay jaay dorog te naa la boole police yi parce que yow sa xaj yi may attaque ba pare sa nit ñi bu ñuy jënd dorog ñëw suma néeg te booy tux sa dorog bi ak sa taay bi fay mel ni suma néeg nga koy tuxee parce que néeg bi concret bi baaxul te man maa ne ci kaw ne ci ron <clears throat> ma ne ko rek nga maa yàgg a sonnal waxuma dara léegi sa xaj yi di ma attaque may wax nga naa ma nit ku ñuul nangam ak sa këpp banque sa mees yi ngay létt wala sa mees yi fay ne ci mbalit meeg sa néeg fay xesew te mos ta dugg suma néeg togg togg yi muy xeeñtu la ma ne ko gannaaw ngay dem personnel di ma xas ma nit ma xas la sa dorog bi ngay jaay te koolal la police yi ñu suuli la mu ne tax ma police yi ko boo koolee police yi da nga xam cancel ma ne ko danaa leen kool ma kool leen mu topp na ne dorog lay jaay mu tëj bunt bi daw dem toog sa beneen xaritam bële ki dëkk fi jàkkaarloo fi kër ba police yi dem mu ñëw ma ne ko danaa koolaat police yi ñu suuli la mu naan ma baal mbokk yu bëri ndekete mbokkam yëpp jaaykati taay lañ beneen mère ab tubaab la wax ay dorog ak taay du du taay rek yeneen dorog yëpp <clears throat> fuñ toll yi karkar nag jonki mbokk yooyu noonu ñoom ñëpp jonki jonki famille daal di dem kasoo ko génn ka jaaya dem kasoo ko génn moo defar lii fa xam xaalis lii lay jaay moo tax li muy jaay tax muy defar yii yëpp jëndal lii yëpp doomam yi def yii yëpp dégg nga ko xoolal rek li ñuy daj fii bitim réew laaj ko nit ñi rek bu doon mbiri tubaab bi sax bu ko wéyee dëgg des liggéey ngi léeg-léeg bi ci boppam fay bon di la réussir wala yeneen nit ñi ci liggéeykaay di la réussir doo ci mën dara boo waxee ñu def la ne yow yaay xam problème parce que xam nga lan la ñoom ñëpp a ñuy def ne nit ku ñuul fa naqadi dara parce que xam nga lan nit ku ñuul boobu mooy def peen ci gune yi tax gune yi gaaw a mer di yërëm seen bopp di naqadi dara xale bu dund dóor noonu la borom fay gaaw a mer di naqadi dara ñaari yi ak a boppam loolu moo tax ñu nit ku ñuul ñu naqadi dara góor wala jigéen dóor bi la te dóor bi soo ko waxee ñu ne ngaa bon <coughs> I know for dangerous kay dégg nga ko ñun suñ feebar bi moos nga xam moo tax Afrique du développe di gune yi ñuy dóor di leen tocco ba tax gune yi suñ màggee di soxot naqa di dere selfish ba tax nguur gi soxotee nii sëy yi bonee nii goro yi bon njëkke yi bon xarit yi bon ñëpp bon far dorog bi dugg Afrique nag nit ñu bon ñi di ko jaay gune yi it xamee naqat di ko yuus ñi war a focus ci doxal dëgg ngeen ne mukk na ni ñi foo ko ci mbiri laalanteeg mbiri stupide stock kuy wax dëgg du ngeen ko farle seen seen doom yi yëpp duñ mën a ñëw di wax di saaga ndeeka juutoo ka wax waxi laalante seen doom yëpp duñ mën a def loolu danga ci xam benn boo xam ne fay cuus di wax dëgg nga ne loolu du xam <clears throat> ku koy wax nga ne doo ko faale doo ko dimbalee pare di ko xas di ko ñaawal man suma xaleen di dal waaye du ma ba de maa gëm suma bopp te gëm suma askan bi boo may rendi sax du ma ba man suma liggéey bi ku may rendi sax du ma ko ba muy wax dëgg gi dëgg la manoon naa xam jëkka tey mu ne bul di waxee nii waxee nii ma respect ko waañ wëlbati wax ji xanaa loolu waaye pour boo wax ji façon xalaatuma ko barke Rasulullah góor gu ma takkoon ne ma ami xolof ma ne mu ne bul waxati si askan bi dara góor ga ñaari fan du ko xam bu xamee xawra yu mel ni fas xam ay million njool rafet ba mel ni maasi you know jomaay ak sonko façon góori sénégalais yu njool rafet loola góori gambi yu njool rafet yooyu ba tey yëpp laa koy wax ne ko bébé fase ma tey ci guddi gi bu bët seet fase woo mu ne ma ah ne ko waa xam nga lu ta liggéey askan bi ci suma deret ji la ne waaye man na maa ne ma wàññil vidéo yu bëri yi wala sooy wax waxeel nii mu gën a rafet xanaa loolu su fekkee góor gu baax la te loof ma ma loof ko danaa ko déglu ku la yërëm di la toppatoo nekk ku baax nga gis ne fa la bugg fa la yërëm war nga koo respect yow it waaye koo xam ne faalewu la pare naan defal ni defal ni kooka du ma ko déglu ay anyway du ma fa toog sax ba di ko dégloo ko ñàkk a déglu <coughs> waaye pour yéen tëb nii rek di ma xas di ma tuutil nii li ngeen may def depuis Facebook yéen a tax ma mën a xuloo yéen golo yi lakk ci ci daay yi ngeen da tëb ci peelu ci gannaaw téléphone bi di ma xas <laughs> ngeen saas du may saagande loo du tax ma bani may waxee <laughs> yéen a ma gën a tax ma miin xuloo bi <laughs> ndax ma koy gisee ne yéen ngeen a soxot ni ngeen ma def di ko def yeneen nit moom ngeen bañ ko ko wax te wala yéen li ngeen dund ma dund ko loolu ngeen bëgg gune yëpp dund ko like just waaye ngeen di ma wax ne ma bàyyi mel ni may saagande yi wala nangam waaye ngeen di ma toroxal ndi dëgg yi may wax noonu laa koy gisee so may gën a continuer <laughs> you see what I mean ne gën a continuer ngeen a xam sax nag lu ma mer mer du may saaga ndey xam nga lu tax saaga ndey mu yab jigéen la surtout meer meer bu dee wala meer bu toog julli tisbaar di takku takkusaan di wirda nga di ko dugg ci xawraam yi mel ni dof mel ni jonki bu dorogu that's what's the point of that even loolu lu mu bokk ak wax ji you te man ma xeex jigéen xeex euh, toroxal jigéen mooy suma liggéey toroxal jigéen bi askan bi def jigéen ñi toroxal bañ nekkee xale bañ màggi toroxal seen bopp di def lu bon ci ñoom di dorogooka ka ci juutu ci ka ngalawaka fenaka naa féqaka def koy jaam di toroxal seen bopp ku ne ñu tëddataka lu ne ñu def ndi fañ xamee naqat te yaa leen toroxal di bañ du yeegu jigéen joo gis muy toroxal boppam fa xamee naqat <clears throat> moo tax may xeex toroxtaande gi jigéen ñiy dund kon nag man duma ma ñëw di bokk si loolu di saaga ay meer dugg seen awra yi génn du ne yow ma ko ragal a def wala nangam nangam déedéet just loolu is against lu may def man fa opposite from li may def li may def mooy askan bi bàyyi toroxtaande bi ñuy def jigéen ak kon nag du ma ñëw di promouvoir loolu di saaga ndey meer yi meer yi lu ñu jotee yow ak li ngay wax looloo tax ngeen xam sax du may def loolu fa xam ko bëgg a dugg nii. kaab bi ni muus mu sibbutu xaama lu muy wut ci vidéo bi mu ngi noonu bëgg a dugg. xaaral ma jël jigéen ji waaw mais ñoo dem sa guys you have to ignore dem waaw danaa leen ignore faatu sa wax na ma ko suma doom ji neexut a ignore waaye danaa julli ñaan su ma jullee ñaan yàlla daf ma dee dimbali su ma jullee ñaan ci dara daf ma dee dimbali danaa julli ñaan pour yàlla def ma ma ignore leen waaw allo. ci loo nekk naa la. maa ngi si jàmm rek maa defoo dara. ça va alhamdulilah maa ngi toog sànq ba tey di suivre sa live bi xam nga sama xarit nga te sama ami TikTok nga. li nga wax sànq am na solo torop mais man dama je te donne un conseil parce que jamono bi wóoratul te neexatul kuy jaay yooyu wala kuy def yooyu dafa jar moytu comprendre nga tu dois faire très attention man su ma nekkoon yow da ngay déménager wut feneen fi nga dëkk parce que zaar yi mën na jël dara dugal ko sa néeg sax sosal la naan yow la waaw parce que mën na bàyyi ba nga liggéey kon ko wax nga ko waxu police mën na bàyyi ba nga liggéey mu jël ko dugal ko ci sa néeg walla ci sa appartement mu naan yow la du ko mën a def damay tëj bunt bi du mën a def loolu comprendre nga loo te tëj tëj bunt gis nga nit bu la bëggee sàkkal pexe mm-hmm. dina ko def du ko mën a def façon boobu moom xanaa gaañ ma de xanaa def leneen waaye pour dugal fi dorog si ma néeg du ko man may tëj buntu wi. waaw parce que capable na loolu. waaye kay waaw man may tuxu man maa sonn sax bugguma suma doom yi gis kuy jaay lii a def mhm, war a déménager que zaar yi moom mën na laa rey sax. wala ñoom seen famille def complot mu ñu rey la. parce que waaw nañ lool wala gaañ la waaw mën nañ lool moom. wala sa doom ñu def sa doom waaw. dangaa nekk foofu te sa njaboot soxla na la sa mhm. famille soxla na la mhm. da ngay daan sa doole di dimbale ñu bëri te ñooñu soxla nañ la du mhm. nekk foofu di xuloo di indi ay détails man su ma nekkee yow nga ut plus rapidement logement feneen nga bàyyi ko foofu noonu waaw moom mooy sécurité ci yow daal mooy sécurité bi parce que nit ku bon bon la rek te loolu bu fekkee nit ki da koy jaay ba pare di ko utiliser mën na ko utiliser un bon jour du nekk ak sagoom mu jam la foofu noonu wala mu def la dara loo xamante ne mooy loolu daal man daal man moom damaa ragal man man genre yooyu duma bokk ak yow quartier sax koñ sax duñu bokk. danaa ñaari at ci gannaaw la fi toxu si. Hmm, doo fi ñëw sax nekku fi woon ma fi ñëwee xees nekku fi woon. waaye façon yi léeg-léeg jox néeg fekk ñoom ñu ngi dëkk ci building bi doo ko xam you waaye waaye man boo fi ñëw nag nekku fi woon waaye ñaari at si gannaaw la fi toxu si waaye danaa danaa toxu danaa toxu danaa koolaat police sax tey nit naa leen koolaat you know soo leen neexee di kool kool rek ne leen bugguma fee dëkk kii bugguma fee dëkk kii ñoom dem nañ boo xam ne xam nañ ne kii loolu lay jaay xam nañ ko kii kii nekkul kan si ñun ma ne leen ah, ñu ne waaw su doon nit ku ñuul na jàpp nañ ko bu yàgg xamal tax ñu bàyyi ko mu di ko jaay nit ñi fa ñuy dugg nii téeméeri yoon ci bés bi taxaw ci bunt mu jox leen ko nii ñu dem ñu ne ko xaalis bi nii mu jox leen ko nii ñu dem ma di ko génn ni jaxaran ñëpp di loolu rek suma doom yi di ko gis te suma doom ju góor ji fii di gis loolu fay foog ne su jaaxlee man na koo def fa gëm boppam nag aadi rek merci beaucoup aadi rek du ko def aadi moom xam naa ne du ko def fa gëm boppam aadi moom yàllaa ko defar rek moromam ñi ci a def lu ne du ko def waaye xuurul daal ko ak moom di gis loolu xuurul yàlla moo koy sàmm waaw am na xale yàlla da leen di sàmm yaral leen seen bopp waaw mais boo dëkkee nit bon moom wóorul surtout da ngaa am njaboot foofu waaye dañuy ñëw suma nekk bi tubaab yi koy jënd ci moom fa ñuy ñëw suma bunt bi di ko fëgg jaawale koo buntam bi soo leen hubbilee ñuy karkari naan la ah foog naa ne du fii de foog naa rong buntu bi la de may leen waawaa ron buntu bi la man du may jaay doro noonu laa leen koy waxee mer ba ciipu leen. xoolal loolu. saa yu ne ñu ñëw guddi sax di fëgg laa guddi sax. yoo koy déménager bu fa toog bu fa toog danaa toxu insaan man jaar yooyu damay damay ragal damay tiit bi nga doon wax ni man maa ngi nii léegi laa yeew damaa tiit parce que xam nga lu tax. <laughs> man maa faale loolu maa dund àdduna moo tax maa dund métit moo tax du may gaaw a tiit dara waaye danaa toxu. xam nga lu tax xam nga lu tax la damaa tiit parce que mun na laa sakkal pexe. nit ku mhm. bon dafa bon. waaw yow da nga am njaboot te sa famille soxla nan la. Mhm. xam nga. mën nañ hmm. laa fexel tamit man hmm. loolu yëpp laa ragal parce que ñoom respecté wuñu africain waaw ma xam ko waaw africain parce que hmm. dañoo ils sont très méchants c'est ça le problème man moom damaa tiit yooyu man yii ñemewuma ko waaw surtout nga ak sa njaboot waaw yow kenn rek amoo jëkkër yow kenn rek xëy di liggéey ah, di jàppale sa bopp jàppale say mbokk Mm-hmm. ëllëg ñu jékki-jékki rek indi la problème bu xamante ne yëgoo tinoo mm-hmm. fekke ñoom la ñoom la daal danga mm-hmm. war a déménager danaa toxu danaa toxu incha allah koñ boo xamante ne bokkoolee sa alignement nga dëkkee foofu yow ak plus important man daal su ma soñoon daal nga def loolu man moo ma gënal danaa toxu incha allah doon wari danaa toxu amul problème defal loolu daal lu mu gën a gaawee dégg danaa toxu waaye gars yi dama war a ñëw dem ah jërë ngeen jëf yéen ñëpp ngi dugg app seet naa ko waaye dama war a ñëw dem gars yi xaaral ma jël leen waaye bu leen yàgg dégg ngeen jërëjëf réeli app seet naa leen xaaral ma jël gune góor gi yàgg na fi borom kaab bi ma doon tooñ noonu ah waaye ngir yàlla bu leen yàgg fa am ñaari ni ñu yónnee xaalis jënd bagage kenn ki Western Union kenn ki Ria te maa war a dem jël xaalis bi yónnee leen seen bagage mhm. te asamaan si mu ngi commencé di wis nii you know kii moom xam naa fa fi yàgg ba affaire bi doxul xaaral ma dindi ko ma jël leen yeneen ñi ok oh jërë jëf xam naa ngeen ñëw pour dimbali ma si affaire bi yan sax si wax ji amin si jigéeni tubaab bi mbiram ok maa leen di jël doon worry about yëpp dina baax man faalewuma ko sax de wax na ma ko live ñaata yoon bul call police yi baal police yi amin you be in trouble mooy ne danga xam problème boo leen waa allo naam ça va noo def yéen ci jàmm. maa ci jàmm rek. ça va bien. jàmm rek mbaa defoo dara. yow defal sa xool xol rek la yàlla di fay bul tiit bu ragal yàlla baax na dégg mm-hmm. boo ragalee rek da ngay da ngay da yeb yàlla te yàlla xool rek lay fay. dëgg depuis loolu yaa ngi def lu baax yaa ngi wax lu baax man en tout cas xol rek lay jàppee nit. jërëjëf mais nit moom ku baax ku ne day am ay noonu bu déglu ni ñuy wax ay saaga bul saagaati say laay fa yooyu bu leen sax déglu boo demee bay saaga dañoo xool ñu la bëgg ak ñu lay suivre. waaw waaw soo boo def chaque jour kenn du la saaga tamit da xam ne euh, ni ku amul noonu daal baaxul daal. Mm-hmm, dégg nga. ma mm-hmm, mm-hmm. keneen. ngi ñëw jël leen waa ku ñëw bu yàgg comme jigéen bi rek may ñëw dem take care of you and your family jërëjëf na ok you need to be careful sis I know right ma fay war a génn waa hello are you okay yes I'm fine aha uh-huh. good um, lu jigéen bu wax rek moom laay ñëw confirmer bu leen faale ñun ñëpp xam nañ tubaab bi ko saf ñun ñu ngi fi England yaa ngi understand bëgguñ nekk ñuul dañuy réussir affaire yooyu noonu léegi yow moom yaay xam sa bopp rek comme lu kii wax take of yourself and your family that's all um, I got question to ask you because of uh, yesterday I show you yesterday gis naa la ngay ngay def live about um, the kaba loo ma gën a tax ma dugg sax uh, man maa ngi nekk fii liis laa nekk mais kaba yi bëgg naa si trop nag xaw ma nag nan laay def ba jot ci ak ñaata lay jar bu. Uh, kaba bi toog nga jot si suba. Ah? ñaari façon kaba la xam bi nga xam ne fa ànd ak xott bi. exactly boobu laay wax mu mu nekk bu toog pound 20 pound de moo des waaye nag soo jëndee next day delivery bi daf dee seer de. 20 pound la. 20 pound amount amount 20 pound moo des. ah ok ñaata hmm. doom la. 20 pound bi foog naa foo la ndax xaw ma foo doom la waa. léegi post bi tamit si lay bokk 20 pound bi. déedéet da ngay post dangay fay post moo tax te next day delivery fa seer. all waaw waaye soo bëggee ma def ko normal delivery su ma ko defee normal delivery mën naa àgg si suba wala gannaaw suba. all right. bi boobu daf dee seer daf nekk ay 9 pounds. 9 pounds d' accord léegi yow mm-hmm. euh, foo kabaay moo nekk 20 pounds nga jaay 20 pounds. waaw mën naa la see yokkal benn muy 5. all right so mag moom benn ten laa ko doon jaay sax yeneen yi moo ñetti ñetti waaye bii moom dafa xaw a ndaw waaye am na yu xaw a mag tam waaye magul noonu soo mun naa la ko dinaa yónnee nataal mun naa la ko defal juróomi tuwenti léegi yow bind ma fii rek su ma paree naa la jox suma whatsapp. all right ma fii su ma paree naa ko seet. ok ma naa ko seet ma jël kii tamit waaw xaaral maa ngi ñëw jël leen. I mean, you to consider housing. Mariva housing. waaw asalaamaaleykum Amina Kam. is available. laa nekk nii allo. naka yaa ngi fine. maa ngi si jàmm rek. madame Kinte maa ah, maa ngi cool si loo nekk si jàmm. maa si jàmm rek. ah ok yàgg naa di seetaan sa laaj bi nag fuloo naa la. maa si loo nekk yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm rek. Mm-hmm. ah ok yàgg naa di seetaan sa laaj bi nag fuloo Kinte sorry maa ngi cool si loo nekk yaa ngi si jàmm maa si jàmm rek ah ok yàgg naa di seetaan sa live bi nag follow naa la nekk si topic boo xam ne fiil naa ne am képp koo xam ne yaa ngi butim réew même ñu nekk Gambie sax am war nañoo mun a wax si mbir mi because comme ñu ngi koo gis every time ñu ngi koo dégg tamit understand nga soo comme mm. li nga wax about waa sa niveau bi man ah, advice bi ma laa jox mooy ah, nga make solution bi nga bugg a def nii is the best solution pour di la ne toogal sa mu nga la yàlla di fay o toogal bul ut yàlla baax na yàlla baax na bii nii moo yàq suñ société bi understand nga yàlla baax na waaye dangaa jàppale sa bopp yàlla jàppale la dafa nekk loo xam ne yaa ngi ko experience te you know xam nga who feels see who feels it knows it not so yow yaa nekk fi nga nekk yaa xam li ngay encounter foofu soo man li ma laay advice mooy nga ut néeg nga tuxu sa doom yi teenagers lañ te they still need yoo understand nga you are a single that you are struggling képp ku la nekk di seetaan xam na ne you are struggling you are a wonderful woman so the best thing is nga move out because at the end of the day su dara xappu ne tamit dafay ñu nekk police case so yow sa doom yi ñooy perte ak sa mbokk yi mm-hmm. so lii amul yàlla baax na amul na sa xol la yàlla di fay yow just move out an an an foo mooy ne pour ma pour bu ma tiit waaye foog naa ne waxu strong mm. woman because ku dégg sa story li ko doon waxee man déglu naa almost everything mm-hmm. you are strong woman ba nga mun a taxawal sa boppati xam nga yor say doom fii yor fi njaboot easy wut so soo demee ba yor say njaboot waa yar leen sa ni ngay life nii yëpp sa ku la seetaan ku lay seetaan xam na sa njaboot dañ am yar même nekkuñ di leen gis man benn benn laa dee gis ak Fatou nii ngeen a génne nii ak yooyu noonu yow la tam ngeen nekk si street bi di aji fruit boobu noonu soo mhm. xam nga soo you are somebody who is very strong understand nga so affaire tiit moom amul fa because fii lu waa mooy dox fii but at the end of the tamit to protect yourself is also very important understand nga so loolu moo taxoon ma ne bàyyi na ik xam nga man tamit lii laa am pour wax pour nga try nga mu faal because waa at na end of gis nañ siin yu mel nii xam nga nit ki def lay traité at the end of mu jaral ko mu ñëw def loo xam ne yow yaay mu mujjee perte so waaw te ah, police wax naa leen ko ñu naan is not a threat good su ko ñuul bi noonu dañuy wax ne that's a threat good fekkoon ne mm-hmm. yow nit ku ñuul ki yaa def step boobu noonu sax di gis ne doo am peace all the time ñu ñëw di la di la di la no question wax na ma sax ne ma bul call police ba pare mu ne ma sneak get stitch sneak get stitch mooy nit kuy dugg sa mbir daf dee gaañu ba pare mu ne ma bul call police soo leen callee you be trouble ba pare mu nekk naan ma I have lot of family members loolu yëpp ma wax ko police ñu ne ma ba tey loolu is not eh, all those all mm-hmm. waaw dafay ñoo gis ne moom foofu la de amee koom-koom yoo xoolal li nga wax ne loolu la tabax ni si gannaaw. waaw xaalis boobu fan la ko amee. soo dafay ñoo gis ne yow da ngaa nekk obstacle. from li moo am soo. mu mu lu nekk la dafay ñoo wala option leen di ceeñ tey mu dawal bi ëllëg mu dawal beneen. xoolal loolu. li dugg si bés xëpp na mm-hmm. téeméer ni surtout ngoon bu nit ñi wàccee liggéey. non dëkk bi drogue neen la. waaw bu nit ñi nii la ñuy jaabantee ñeen ñi ñoom ñaar saxay tasee si moom. mu jox leen ko nit ñi mu ko xam nga lu problème bi mu jox leen ko live it's not correct moom su la avoidé am na mun naa am ñuy ñëw si moom understand nga muy dégg xëy na muy discours sa mbir ak ñooñu one stupid person bu dee ñëw si moom mun naa atem def la anything or your kids. waaw moom sax moo ko koy wax ne ko I need some I need a to help me. loolu la kay so that's it. yooyu ñoo nit ku ñuul benn benn niiga benn nangam bu may sonal surtout nit ku ñuul surtout tubaab yu bañ nit ku ñuul ki wuñ ko de xoolal moo la yi nga tubaab nit ku ñuul ak seen xaj yi lañ emale jàppewuñu dara dara yi nga boo duggee si train bi maa nga dugg si métro bi nii ñu lay xoolee dañ lay xoola xoola hmm. xool ba dañ leen dee mujjee jéppi ak booy liggéey ñoom su dara rek yow yaa yaa dee yaa dee perte yaa wol booy liggéey ñoom bañ xànd nag di la ree di la su su bireeg jotee ñu di waxtaan def la dof di la ree la buli liggéey bi fu mu méttee ñu ne yow problème bu xew ñu ne yow ñu ñun li ñuy daj bitim réew fii amuloo si dara sax amuloo si dama war a dem moo tax waaye beneen yoon nga dugg insa nga xamee suma waaye duma dee gaaw a jël nag lay follow waaw a strong woman that you are, okay? God will si suñu kanam yi njaboot bi ba si kanam a kanam a lépp lu la noonu di pexeel yàlla bu mu la si fekka. si barke salaatul fatiha. I love you I love you right. thank you very much thank love you too jërëjëf waay oh bye bye following you jërëjëf waay ok guys maa ngi ñëw dem du yàgg xama see ku nekk fi ok mhm. léegi bu keneen ñëw de ngir yàlla may jël ñett ñi fi nekk ni la bu keneen ñëw may def all right na keneen ku ñëw ba pare bu keneen ñëw after kii ngir yàlla may dem waaw Ami yaa ngi ci jàmm. jàmm rek kay waaw mayal si kaw ba pare. waaw waaw. yow mi si kaw waxal waaw. non si yaa ngi ci jàmm naa def. jàmm rek kay. baa ngi am tawfeex. jàmm rek. ah man de sa kii bi maa ngi lay dégg waaye li ma la doon xelal de mooy li ngay def nii daanaka du solution ndax yow da ngaa jóge dëkk ñëw yor foofu sa njaboot yaa ngi gis loo xam ne dalul sa xel. àndul ak euh, àndul ak sa diine àndul ak li nga bëgg a dund ak sa njaboot yow li nga war a def mooy xool faneen foo mën a dëkk rek foo xam ne dina la arranger nga dem ci njëkk waaye nga nekk foofu di ko koolal police tout le temps loolu amalu la importance parce que du yàgg-yàgg ba nga am ci résultat bu la neex déedéet waaye xam nga lu tax may kool police yi soo police yi fay tax housing bi fu ma dëkk ni housing la housing ak council seen néeg moo gën a yomb fuuf private tey su ma waroon a luwaas private tey benn ñetti cabinet soo ko xamee ngay fay junni pound wala lu ko ëpp te fi mu ne juróomi téeméer bi sax tuuti moo ko manqué matut ci néeg bi léegi nag ñoom suñ la waree toxal ñoom duñ lay toxal ci caaxaan by force nga kool police yi police ñëw xam problème bi nu demee ñu ne la waa wax nga dëgg fii xuurul nga dëkk bi su police yi waxee leen loolu ñoom ñoom fa ñuy contact police yi laajte ndax lu xew ndax ami xuur na foofu wala déet suñ nee waa ami xuurul ñu génne loolu la police yi war a wax te feeg nexoo di leen kool di leen koolaat duñ ko wax bañ soxot te bañ nit ku ñuul bugguñ laa génne fii fañ bugg nga dëkk ak criminal yi ndax sa doom yi yàqu police yu bëri fañ fañ soxot te bon fii bañ ñëwee sax boo gisee ni ñi nga ñi nga ñi waaw surtout police yi njëkkoon a ñëw ñaari yoon lañ ñëw ci mbir mi wax nga dëgg man nag damaa jàppoon ne tax ma kool leen waaw pour pour damaa jàppoon ne da nga woote waaw damaa jàppoon ne da nga nekk di amal moom jafe-jafe déedéet du pour moom ñu tëj ko de déedéet maa bëgg ñu génnee ma fi waaw te soo xamul évidence duñ la kii soo ko rombee hmm. waroo séq ak moom sax euh, nuyoo yow nekkal ci sa bopp rek waaw waaw waaw nekkal sa bopp mel ne mel ne yëgoon na mi ngi fi waaw waaw déedéet faale ma ko hmm. ñoom seen dund dafa doy waar te ku leen nar a yàqal seen business jaral na leen lu nekk waaw jaral na leen lu ne hmm. te yow daanaka loolu jaralu la ko te jàmm jàmm moo gën loo gis waaw xam naa ko soo gisee ma di ko wax si vidéo bi tam pour nit ñi jàng ak nit ñi ne Afrique. xam nit li nga def ni kay am na solo. ndax nit ñi xam nit ñi li dund fii ak ñun ñi xam rek looloo tax. waaye yaa ngi mm-hmm. yaa ñeneen ñoo xam ne xamuñu woon lu mel nii. te tamit lii moom lu am solo la waaye yow sa jëm moom bépp démarche boo war a def pour génn foofu mën nga koo def. danaa génn incha allah danaa génn moom du génn moom yow jéemal a génn rek moo danaa génn incha allah waaye réeli appoussé naa ko dama war a dem moo tax xaama keneen wax ma ñëw dem waaye réeli beneen yoon incha allah jërëjëf waay. sista bi allo jàmm rek yaa ngi fay. maa ngi si jàmm rek. waaye man du ma la advice to tell you the man man maa ngi Scotland te man lu la dal nii daloon na ma. yaa ma understand. te jaaykat foo ko jis ko gis rek bi famille am yaa ngi fa te famille am yëpp dañuy nekk jaaykat. Mm-hmm. te la amutee yow mun nañoo jot jot sa si sa doom yi. so you need to be very very careful country bi mooy da nga make sure da nga make sure da nga am nga am evidence call policy it makes sense but still make sure nga am evidence yaa ngi amee sa smartphone bi su mu ne tax sa pointé bi ne ba nga gis leen gars yi dugal di génn jëlal videos rek make sure you have loads of evidence dama su su ko sa bunta bi sooy dem sa bunta bi make sure yaa ngi amee sa sa téléphone bi sa caméra caméra bi is on you're recording them for you to have evidence because man suma man dem ma naan jam si suma si suma palanteer bi te ñoom sama pare du bi dama am sama paak paak sama dem si homeless bi nga xelaat man nga moom war a dem homeless ñu jox ma eh, temporary accommodation den ñu jox ma jox ma fii fu ma nekk nii moo gën a baax sax fu ma nekkoon fu ma nekkoon it's like eh, four in a four fu ma nekk nii four in a block but dama am suma own suma own front and back garden so the best you can do jëlal videos if they are coming in and out jëlal videos every day make sure nga jóg da nga koo def sa sa sa sa sa xaajo every day taxawaat si ponteem soo soo gisee ku ñu la jëlal vidéo sa bu dem suñu ko koŋŋoŋ rek make sure sa caméra bi is on for you am sa evidence bu call benn police already call nga gars yi du once du benn yoon du ñaari yoon demal si si si si control bi straight away ak sa bagage mm. nga am sa evidence yi bu call benn police already call nga gars yi du once du benn yoon du ñaari yoon demal si si si si control bi straight away ak sa bagage Because mm -hmm. you, you have evidence that you were there. If anything happens to you, it's on them. That name makes or nila your temporary accommodation. Nila mm -hmm. house. They don't have any choice. Good. But okay. like uh, eh, is, is, is, is important. It's very, very important. Her life is very important, especially ah. Sasa Domugobi. Domugobi, I'm not talking about her because always mom is with you. But Domugobi, don't know where he is. And Ninko Trape, you won't know. Your mom not protects about why has Domugobi protect? so make sure you have lots of mm. evidence. like lots of evidence man boobu sax lu ko dimbale mooy moom aadi lu ko dimbale sax mooy moom duy am ay xarit taxawaalu nii def lu mu war a def nii. su ba considéré xale yi dëgg bopp yi lu ko doon si lañ ko dina gaaw a jot waaye moom jàngi ñëw rek waaye mun nañ koo kar si yoon bi waaw. mun nañ ko pootu mun nañ ko pootu pootu mm. te suñ ko pootu you would know who did it. waaw doo xam ku ko def. Mm-hmm. all they can tell you is we are sorry. waaw so jëlal lots of evidence give them at least a month or two demal si council bi sa sa bagage nga ko gars yi ne am no moving an inch ba ngeen di house ma évidence yëpp a ngi nii te maa ngi recording pour future pour ni dara dara jotee because xoolal jigéen bi lu ko dal England you ah, talk about it you talk about it on this platform dañu xaar ba xaar jugu di mu ngeen nelaw gaa ñëw taal néegam bi mu dee mu ñaari doomam bi yëpp so be mhm. very very careful jaay ka du am du nekk benn de dafa nekk dafa am famille magam rakam mhm. system oncle am ñëpp a ngay jaay so if you are threat you a threat to them they can do anything so be very very careful may danaa dem xamal ne Kansu mooy sa target Kansu mooy sa target jël jëlal lots of evidence nga amee ko sa sa naa sax ngoon lañ dee ñëw gi nga ay boori four five time bu nit ñi di wàcc liggéey jànga oh my god moto bay moto lifin bicycle tànk ak moto ñëpp a dee ñëw ji nga si sa si sa tiktok bi utal eh, di simple simple caméra bu nga xam ne mu moo ko def si sa palanteer bi si biti dafa record everything you have everything everything in evidence nga xam ne su Kansu bi waxee leen lii waaw gaa ñi ne mu ngi nii xool leen exactly. so they, they, dinaa ko record yow bul wax dara dinaa ko record te xam nga naka laa ko recordé parce que soo nekkee si pont palanteer bi soo ko recordé ni kuy dugg si building bi mun nañ laa ne kii fay dem si building bi te moom kenn ak yow dëkkuleen si building bi léegi man may wàcc suma stairs yi ndànk ba nga xam ne kuy ñëw si stairs yi ma gis ko waaye gars duñ ma gis ma taxaw si kaw foofu di ko record jaral na ma ko just between four man de ma prostrate waaw surtout between six and seven between six time boobu lu ma lu ma téeméer ñoo ñëw ci ci benn waxtu boobu noonu fekk ñoom ñëpp wàcc nañ liggéey fii la ñuy jaabante di jënd ñeneen ñi fa ñuy takk peinture sax nga gis leen ñu ngi jógee liggéey peinture taxaw nii di jënd nii du ñu ngi six yow soo nekkee obstacle rek they will get rid of you because affaire si soo ko soo demee ba commencé di ko laal jeex na you anything that will get in your way rek you will get rid of them so bu very careful man du laa mën pour ko dégg nga incha allah ok dem bye bye. danaa ko def ok ba si kanam. bye bye. Mm. may ñëw dem sax bu kenn yàgg bi yow. waaw jàmm rek. waa xam nga man la laa lay conseiller. waaw. ñun immigré dañu war a xam ni fii Europe. Mm-hmm. dara wax ko ak ñàkk wax ko am. Mm-hmm. man xam nga loolu laa lay conseiller. Mm-hmm. wool police nga teg leen pression. ñu wutal beneen réseau kii logement sociaux boo xam ne di nga ci mën a dëkk. waaw ñun ñooy ne fii di wax naan Europe nous les Africains nañuy wax nit ñi dëkk xam nga yow damay may ci yow. Mm-hmm. ñun ñooy toog naan voilà Europe easy nañ ci easy nañ ci c'est faux. ami xale yi à l'âge de dix ans ñu ngi dund racisme ci biir école yi dix ans laa la wax. ma xam ko les immigrés doomu africain yi dix ans cinq ans ñu ngi dund souffrance ñu ngi dundu racisme ci biir école yi. yéen ñii ticca yéen ñii ticca bi lay jàngal sax mooy récit ticca bi ci boppam yéen ñii mooy récit bi ami olof ñun justice bi en bokkuñu ci. non bokkuñu ci ñun ñooy nekk rek di fen rek di fen waa Afrique rek. ma xam ko. naan usine nañu Europe baax na Europe mais sa doom bi nga xam ne yow moom nga jur des fois da gis benn frustration boo xam ni yow rasin bu muy dund la mu wax la ko ak mu ñàkk la bañ a wax léegi nag li ma lay wax. mooy automatiquement foofu soo mënee def intervention ak police ñu xoolal la foo nekk parce que jaaykatu drogue ak tubaab bu boppam normalul immigré waru ko jege. duñ la jox pour raison duñ la jox pour raison même policiers yi bu ñu ñëwee dangay gis ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi am benn far boo xam ne ñu ngi koy def seen doomu réew du ma leen ci blâmer. parce que nit ki rek sa doomu réew nga war a favoriser. Mhm. xam nga tubaab dañoo am fula. waaw ñoom seen doomu réew la ñuy favoriser. mais ñun ñoo ñàkk fayda ñun ñooy toog di xas Afrique. dëgg ñun ñooy toog Europe bi easy wuñ fi. ñun ñooy toog ci Europe bi easy wuñ fi sa doom easy wu sa doom ngay dem di di foog moom ci parquet yi tubaab bi di téye doomam. xam nga dogguma la yàlla bu la yàlla dog xam nga tax lu indi wax jooj xam nga yéen may commencé di wax dara. waaye yow dama lay jaajëfal xam nga lan moo tax ma lay jaajëfal xam nga lan moo tax ma lay mm-hmm. yow da ngay wax Afrique réalité yi am Europe. waaw taxawal ma waxal la taxawal ma leeral fii rek xam nga lu tax ma indi waxi tubaab bi ak waxi bitim réew gi yëpp ba tax wax ji toll fii mooy ma doon wax mbiri nit ñi nga xam ne suma liggéey bi may def moom la ñuy xeex ba tax duñ may support ak di ma xooxee tuur bu ne te fekk man li may xeex mooy Afrique nañ jàngal gune buñ nekk di tëddoo xale yi nañ dóor euh, bàyyi dóor xale yi bàyyi tuutil jigéen ak xale jàngal xale yi école su ko defee xale yi màgg gëm seen bopp. xam nekkoo di lu ñaaw waaw léegi lu may wax conseillé mm-hmm. yoonu jàmm soriwul mm-hmm. man mii am na sama benn vecino boo xam ni soriwu woon fi mu dëkkoon mm-hmm. jaaykat drogue moo fa nekk coow gu dégg bëccëg coow gu cëg bëccëg daa xëy rek waa teg ko goon xaay fenn gaañ ko waaye dóor ko bal nga naan ma gaañ ko fan la noonu en Espagne what Espagne mais déggoo li ma la nee naa la jaaykatu drogue moytu ko bu budul jaaykatu drogue sax xam nga ñun lan moo ñu lan moo ñu jig ci Europe bi nañu moytu ndax suñuy état yi protéger wuñu dëgg tey ami olof xale yi xale yi di jàng ci école yi à l'âge de dix ans muy Allemagne muy Belgique muy France muy Angleterre foo dem xale yi à l'âge de dix ñu ngi dundu ay insulter racisme ci biir école yi. Mhm. nga ko ak ko nga ñàkk ko wax. yow yaa ngi ni am na ci. parc parc yoo xam ne boo fa demee tubaab bi day téye doomam nga dugg ci biche tubaab bi di la wan bëtu racisme ba nga xam ne kii dafa racisme. waaw waaw. kon droit yi ak loi yi ñun bokkuñu ci dañoo rëy làmmiñ di wax rek. Mm-hmm. xanaa nga bëgg a ndayale sa bopp Europe bëgg ne Europe lépp moo baax. te yow yaa ngi nii xam nga ne tey lii nga def nii bu doon doomu Angleterre moo ko def automatiquement dinañ ko déporter xoolal ko fu baax dëkkal ko fu. waaw. parce que yow dañu xam ne étranger nga. ba pare su fekkoon ne man nit ku ñuul ki maay jaay drogue. waaw léegi ma lay conseillé mooy protéger sa bopp ni ngay protéger sa bopp mooy bousculer policiers yi wan leen fii mënuma fi dëkk parce que maa ngi ci danger bindal sa rapport yóbbu bousculer leen ñu wutal la feneen foo dëkk buñ la wutal nag foo xam ne mënoo ko fay. parce que ñun bu ñu fen ñun ay étranger lañ am na ci zone yoo xam ne mënuñu fa dëkk boo fa dëkkee boo fayee doo dese dara. danaa def loolu incha allah. voilà man loolu laa lay conseillé te it maa ngi lancé bépp immigré nañu bàyyi wax lu dëgg fii isi wuñu fii isi mooy dëkk bi nga xam ni soo amee sa droit ñu jox la ko mais ñu ngi insulter les africains amuñu droit ci dëkk yi ak foo mën a nekk nag. exactement. voilà léegi yow defal loolu fexe la. yooyu police yi fexe leen Euh, defar rapport ne leen maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci danger parce que tey yow loi lu mu wax bàyyi xaj muy songu nit lan la ci loi wax. ba xaj bi xokk ma ba muy naaj. xam nga xokk la xam mu ngi na mu ngi doon naaj. Mhm. te du yow rek yow da nga gis africain. ma ne moom dama wax sax ne ma boo koonee police yi da nga am problème. tubaab bu yor xaj bu soxal xaj bi daw di ko song muy daw man gis naa benn africain fi bërki ki waa ji xaj bi dafa dafa topp waa ji di ko dàq di ko dàq te loolu sañu ko def tubaab exactly nous les africain ñoo ñàkk fayda ci réewu Europe yi. xamul nu ñu ko protéger sa bopp xam nga ni ngay protéger sa bopp nguute bi bés boo ci duggee du benn africain bu la fa fekk di la protéger tey africain yi seen làmmiñ ni muy rëy rëy rëy barki yàlla coow bu tàkkoon doo gis sa benn mbokk africain bu la protéger. Mm. protéger sa bopp woowul police. <laughs> jox leen seen rapport loolu mairie tubaab bi la beneen maire bi dëkk fële. waaw moom ngi ci erreur. Uh-huh. maire tubaab ak ñàkk a maire tubaab tubaab moom lu mu metti metti metti bu coow amee lu mu metti metti ci mbokkam lay far. waaw maire tubaab bu sax fa naa fee xam nga tax ma wax la ko. voilà moom te keroog ma bi jaay noonu moom fa noppi mu taxaw ma taxaw jigéen bi taxaw jigéen bi di wax ak moom di complet naan ko ami ami mu ne fay korpoli nangam. yow protégé jigéen bi nangam waxut di taxawal waxal la rek. taxaw na mm. waxaat la pour leeral li nga xam ne waxut dara de mu noppi nangu taxu bi gémmiñam mel ni ku su jigéen bi waxee man ma wax mu noppi rek léegi xaar nag ba beneen yoon na ba nga xam ne bi néew fa mu ñëw naan ma jigéen bi da jaayam mi jaay kay nit ñëpp xam nañ ko fay sonnal nit ñi xajam yi fay attaque ni ñi ñëpp man sax xajam yi fañ may sonnal te fa ñuy day ci garden bi te garden bi nit ñëpp a ko a bokk ñu di fi day nangal nangal yow lay ko yow lay pour nga wax ko te waxul ko woon na ci kanam ba pare naa ne bul toxu bul toxu bul dem fen toogal bu mu la tax a toxu. demal de léegi man sax xam nga lu ma ko mane ko waaye lu tax waxoo lii keroog ma doon xulóog moom te nga noppi mu ne ma déedéet xam nga rek maa bañ a dugg ci xulóo bi ah te léegi ngay dugg ci xulóo bi. demal de ñun africain ñoo rëy rek muy Europe muy Asie isi wuñu isi wuñu fii. loolu mooy dëgg. man de bu dee ñoo dem moo ta may ñëw dem maa war a dem puus a dem jëli xaalis bi. waaw defal sax nga koy waaj. waaw may ñëw dem. am na ci ay am na ci ay protection yoo xam ni même bu dul police mën nga dem ci protection yi nga xam ni ñooñu ay association lañ ay tubaab lañ ñooñu mun nañ la jàppale. danaa def loolu incha allah. waaw parce que tamit munoo toog ba waaj euh, problème ne kët sa kaw bu ko waaj. lu ma ko def danaa danaa danaa génn ñu ngi lay ñu ngi lay ñu mm-hmm, jërëjëf waay réeli app seen naa jërëjëf thank you very much ok guys may dem jéggal leen ma may ñëw dem dama war a dem jëli bagage euh, dafa am ku jënd bagage ma war a dem jëli xaalis bi Western Union ak Ria dañ ma yónnee xaalis foofu noonu ma war a dem jëli xaalis waaw téléphone bi salaamaaleykum Ami jàmm rek waaleykum salaam Ami nuyu naa koy naa ami maa ngi lay suivre boobu ba tey waaye maa ngi bëggoon dugg ma ni. di ngay wax ni dama koy dëggal de. waaw démb bi suba. Hmm. heure yi hmm. maa ngi sama école doom. Hmm. parce que dafa am benn tubaab boo xamante bi daal sama sama doom bi di jàngee doomam foofu lay jàngee ami. mais daf koy topp di ko wax affaire racisme. di ko wax ni ko comme day. dégg nga da nga ñaaw sa muuraay bi yaa ngi dégg ñun jullit nañ am nañ droit muuru mais daf koy xas di ko xas ba sama doom bi di dépresse di ñëw di jooy man ma wax mu fayu mu fayu mu fayu léegi nan la def papay xale bi ak yaayu xale bi dañu bàyyi ba heure bi jot ndaxte ñu ngi taxaw kar sama doom bi yaa ngi dégg yàlla moo def sutura de am ñu fa nekkoon ba pare ñu génneel sama doom sax paaka ami barki Serigne Touba. paaka nañ ko la loolu ban dëkk la noonu. maa ngi Londres si yow. laa illa dégg nga de xoolal sama ah? moom laay ma ne dégg ngeen ko de. ma ni sama doom bi ma gis ne heure jot na ñëwul mu jaaxal ma ma koy woo fekk dafa dénkaane téléphone yaa ngi dégg ak sac bi ki mu après comme nit yi bëri woon nañ fa ku jigéen ki ne ne ne ne ne jëkkër ji ki mënuñu ko laal fii xam nga ne nit yi yëpp wër nañ ñu te xale ñu ngi yor seeni kóol yaa ngi dégg ñoom xamuñu ne ñun dañoo xaw a dend sax ay kër ñoom xamuñu loolu sax te soriyante wuñ de suñu kër yi matul sax juróom benn kër. après ñoom ñu dugg seen kër ñu ne ko lii soo ko waxee école wala nga wax ko sa sa sa para bu lu raw ni nan lay def ba pare ñoom ñu xëy suba ñu jiitu école pour boole ñu jiitu école pour boole te ñoom indi woon nañ seen beneen moroom cousin wam cousin am boo xamante bi moom moo mag sama doom pour mu dóor sama doom kooku dafa xool sama doom gis na mënalu ko dara ndax bi ñu defee noonu sama doom dafa roppi saagam fiil bu fa nekkoon bu mu rawoon bi mu leen ko wiccaxee ñaari yoon ñett rek dañu dañu kii dañu àndotu àndu xam nga uh-huh. ñu xam ne kii préparé woon na leen ba pare comme da doon taw xam nga ni fan yëpp ombrelle bu mu yor dafa yam mu ne bu ngeen ma ko jegewee rek ma jam leen ko wax ngeen yor seen paaka balaa ngeen may rey man dinaa défendre. eh gore na sama yaay lay woo sama doom mi ngi am 14 ans. ndeysaan góor jigéen. jigéen la maam jaara. waaw mu ngi muuru kay gu jigéen la. jigéen la illa léegi man démb sama doom bi ma ko waxee man ma daw. dem si école bi loolu mi ngi am barki démb de man démb ma daw si école bi parce que dama ne xam naa seen jikko ndaxte ñoom démb si huit daw si nan ñëw si école bi. pour xam di boole léegi man ak sama doom bu góor bi sama doom bu góor bi mu ne ma lii duma boole damay def comme ñoom man africain laa te yàgg naa si dëkk bi tey dama jël off pour lijjanti ko dañ may rey rek wala ma rey leen ñu bàyyi sama doom sama rak ñu dem ba foofu ndakate école bi ñee bi ñu boolewee ñoom jël nañ xale bi ñu téye ko benn fenn téye ko fa daal comme genre punition ñu teel ko libéré avant heure bi ñu ñu ñëw gisuñu dara. laa illaa. sama xol bi moo tàng bi ngay wax nii damaa xam li ngay wax damaa xam li ngay wax sama doom sax changé naa ko woon daaw rek école si mel nii ay xeex ay lii te soo ko gisee ku yaru la li ngay wax sa doom bu góor boobu moo nekk ci kii kii dafa noppi noppi waayam bi moo tax ku jóg yàpp ko ku jóg yàpp ko bañ bonta réussite te bañ nit rek waaye xam nga nooy de man danaa ñëwaat ci kanam danaa ñëwaat ci kanam sama mais dem mhm. posté ji baga xaali xaali lañ ma yónnee war koo jëli maa war a sangu maa dem te ñooñu incha man daal lu ma lay conseiller daal mhm. ami mhm. li ma lay conseiller mooy fexeel nga gis consul bi ñu jéem la wutal feneen parce que ay du yem ci boppu borom yow mun nga defendre sa bopp mais say doom munoo leen defendre ay xale nañ yow xel bi ngay am ñoom duñ ko am te ñii dañoo yées gëmuñu yàlla baaxuñu baaxuñu te raciste nañ loolu rek laa lay wax te munoo faay sa sa dund ba heure bii xam nga yar sa njaboot ba heure bii nga ngay jël sa bopp di ko asaaloo asaaloo bi mooy nga ni damay defante ak ñoom déedéet bul asaaloo mukk sa àdduna sa àdduna ak sa àdduna doom instant bi yow yaa leen mën a jàppale nga gérer ko ñii bu leen sax bul sax jéem a wax ak ñoom soo leen rombee demal nga def li ngay def nga dem sa yoon bu ñuy wax sa bu leen tontu yow lijjantil rek noo koolee ba ñu wuy la ba nga génn foofu bàyyi leen si jàmm man loolu laa lay conseillé te xam ne yàlla baax na duma la téye nag comme dangay nekk ci liggéey jërëjëf waay yàlla baax na ñu ko yàlla baax na jërëjëf ami parce dëkk bi dafa doy waar te stress bi daf fi bëri te xamuñu lu ñuy dund ñun ñun li ñuy dund metti na lu ñuy dund metti torop yàlla baax na ami son bi ñëwatul de même man li ngay wax yëpp déggutuma ko son bi ñëwatul billaay son bi dem na mhm yàlla baax na ami son bi ami liiral li ñuy wax son bi xam na yaa ngi wax lu am solo mais déggatuñ la billaay dangay xool xale bu am 14 ans nga koy génneel paaka yow nga ni jigéen nga am nga doom ah ni nga bëggee sa doom noonu la ko keneen ki bëgg doomam mais yow nga génneel ko ko ba xale bi gis ko xale bi su amul woon fit dafay seetaan rek ñu jam ko mais heureusement moom mu mu mu mu yoroon fiil boo xam ne rawoon na ko mu gudd mu laxas ko si loxoom bi mu leen ko wiccaxee xam na ni seen der yu xonq yooyu mu dal moom dinañ ko yëg ami déggatuñ la son bi ah ok ok ok ok d'accord ok sorry guys police yi ñoo ma kooloon nii ndax yéen a ngi dégg. waaw waaw ñu ngi lay dégg. allo. allo waaw police yi ma kooloon nii mu. Mm, ok yàlla baax na. waaw police yi bu ma leen koolee woon dañ ma waxoon ne danañ ma boole euh, ñaari yoon lañ fi ñëw xam nga léegi ñu wax ma mm-hmm. ne danañ police yi njëkk a ñëw sax police yu bonta bañ nit. faatu sax fa doon jooy keroog. dig police seen kanam gi ak ni def. faale huñ ma sax tuutil wax ji. dawal seen oto bi vur romb ma léegi euh, ne ma fañ xam beneen beneen beneen kool fa ñuy dem maanaam lii du dara lii sax waruñu ko ne kool si lii. and then ma koolaat leen fekk fekk aadi fa leen déggoon aadi mu ngi néegam tëdd palanteeram bi mooy palanteer bële sa kaw fële. boo ko ñoom ñu toog ci ron fii. Mhm. ci ci mhm. ci ci gannaaw fence bi ci fi ñuy weeree yeneen yëre noonu foofu lañ mhm. toogoon di di di xamee seen toogu di di naaj wi génn mu toog fa moo beneen xaritam muy wax xaritam bi si àngale ci seen làkki euh, tubaab bi nen ne ko kii faat faat black bii bi néebu bi faat nit ku ñuul ko faat niiga bii fa may koolal police waaw waaye danaa ko su oytuwut stinik gestich maanaam koo xam ne fay dugg ci problème nit fay gaañu mooy mhm. Snake Stitch su ma mhm. oytuwut faat balaak néega bi suma ma oytuwut aadi dégg ko muy wax loo xaritam bi si la aadi tiit ba ñëw si mhm. waañu fekk ma fa aadi xool ma nii ne ma yaa wax nga dëgg fañ war a toxu ma ne ko ah wax ma lim yëpp ma ne ko nga ko war na record mu ne ma ah, lu ma si xam soo loolu buñ ma koolee nii wax naa leen ko ñu ne ñu ne naa dem halti ah, ah, haltine haltine bu weer wi fukki fan ak juróom benn naa dem fekki leen ci seen office ba fii su réewut ak ma dëkk ma ànd ak aadi su ko defee ñu wax ak jos expliquer problème lu mu demee yëpp waaw loolu lañ ma doon koolal nii police bu jigéen moom a kool nii. Mhm. mais tamit xoolal daf lay dafay jar nga jël sa bagage yëpp dem ci buntu concert bi. man gëm naa fa demee te police yi bindaluñ la këyit ne. Mm. police ñoo war a génnee këyit gi nag ne ne lii ak lii ngay dund foofu. moo tax ngay léegi nag bul may jàmm police bi. moo tax bul leen may jàmm am nañ ay kër de. yu ñu mun a mhm. jox nit ñi. li su mhm. nekkoon nit ku weex la ba tey jox nañ ko ko. waaw seen affaire racisme moo xam la may nekk di record fi nekk mhm. nii bu seen may ne di record bu nit ñi jënd surtout ngoon bu nit ñi dugg may record di record fii ba balaa weeri fukki fan juróom benn fekk ma yu bëri su ma woon ko police yi xam nga nooy def jëndal tali caméra yu ndaw yi nga xam ne comme big la yëpp na nga nga nga nga placé ko nga xam ne du feeñ def ko ci sa fenêtre ndank nga xam ne dina la jëlee du mën a jël néegam moom néegam moo nekk ci ron man sama bos moo ne ci kaw mm-hmm. man maa ne ci kawam nii waaw te nit ñi ñuy dugg ci building bi rek boo leen recordé xam nga police mën nañ laa ne kii ci building bi lay dugg te ñun ñeent ñoo fi dëkk man nag man may man maay wàcc suma TS bay gis TSam yi nii ma nit ñi mhm. may record nit ñi ba ñuy ñëw taxaw nii nuyu ko mu nuyu leen jox leen nii jox leen xaalis bi ñu def mën naa ko record yëpp di yoor di ko record du ma gis waaw kon defal loolu il faut nga am ay preuve xam naa nu may dem ma ay record waaw kay rek ma daw ñëw yoon ndànk record waaw daw ñëw yoon ndànk record parce que ñoom waxu kese bi noonu rek duñ mm-hmm. duñ duñ ci basé wu duñ ci basé wu. Mm-hmm. dañ naan amoo preuve da ngay wax rek. noonu laay def nga am preuve. defal mm-hmm. loolu ami li ngay dund nii xam naa ko man xoolal démb sama xol bi dafa nakari trop ci sama doom bi. niñ ko oh def noonu école. ba pare xoolal ñu teel a bàyyi xale bi mu dem jàngi. ñu teel a bàyyi xale bi mu dem ñibbi. man ma ñëw man ak sama doom gisuñu dara. sama doom yow nag noo leen wax ñii ni tey fañ la waroon a kool sax laajte la. ñu woowuñu ma ma te sama doom bi bi mu ñëwee ñoom suba teel bi huit heures dem na si ñoom de wax leen ko fekk fa kooku mu taxaw mu ne ah xoolal sama yaay mu ma wax pour ma ñëw wax leen di xew ndaxte moom ñëw na si nañ ko waxee lan la mu ne nañ woo doomu kii wam bi ñu woo xale bi mu joteel sama doom bi expliquer leen yëpp ne leen c'est pas la première fois ma joteeg moom fii yàgg naa ñëw di boole sama yaay woote na fi wooteete fi léegi sama yaay nee na trois heures moom dina ñëw ci école bi dina fajal boppam comme yéen mënu leen ko fajal moom dina fajal boppam xam naa nag loolu mu leen wax moo tax ñu teel a libéré xale bi. te mm-hmm. na ne naan ñi ay nit ñu nit ñu ñuul ñu dof nañ xam nga rek ñu bàyyi mu dem. Mm-hmm. Euh, mi noonu pour lan xale bu ndaw nga koy génneel paaka. xoolal loolu xam nga lan yow ñëwaatal waatal Fatou ndax fi mu ne nii may dem ma war a dem sangu dem jëli xaalis bi ma yónnee. incha allah ñaari nit ñoo jënd bagage ma war la ma a génnee xaalis bi Western Union benn bi benn waaw. te asamaan taw bi wis bi waaye maa teel a dem bi moo baaxul. danaa ñëwaat yow bul danaa ah, ñëwaat si kanam wala ngoon. incha allah ñun ñuy def émission yu mel nii di xeete di waxtaan di joxalante xel ñunu neen. yooyu lay ñuy def de billaay ku fi amul doom te dund ko noo xam li li ñuy def te nag sama doom problème bi mooy comme dafa nekk représentant classe xaw ma comprendre nga li ma wax classe bi su amee wala école bi prof yi nu ñuy sonalee élèves yi ak li nga xamante bi neexu leen ci école bi moom dañ ko fal njiit boobu. waaw xale yu baax yi la tamit assemblée waaw loolu la loolu moo leen di sonal nag. moo leen di sonal moo leen di sonal man dama koy wax ne ko del bañ mais moom nee na munu si dara dañ ko koy fal léegi nag man nee naa ko yooyu yëpp daf ciy joué man su ma sañoon rek nga dem muuru jàng sa jàng ñëw toog. kenn bañ la xamal déedéet Espagne koy dimbale si récoltam bi pour ëllëg su buggee am liggéey. Eh. ah en gisoo faatu suma mm. doom ji noonu la moom xeet gaal la ci school bi xeet gaal mooy mm. comme xeet gaal yi ñu xale yi day nekk si kaw xamu nu ñu koy waxee léegi nag moom mm. tamit teacher yi fa xam yenn teacher yi koy bugg waaye yenn teacher yi fañ koy réussir bon waaw kay jeex na waaw parce que bu mënee jàng di am ay ay ay waaw waaw waaw ci ay xeex ak duy dugg ci ay bon koy xañaane loolu déggoo li ma la wax man saa yu ñuy def seen kii yooyu suñ leen di jox noonu seen kayit yi noonu su may dem day am ñoo xam ne ñoom dañ koy def compliment dañuy mm-hmm. kontaan dañ may wax ne naa ko gën a jàppale keneen nangu na bëgg na jàng mais am na si ñoo xam ne du ñu yàgg ak man de. fa ñuy mer am na yoon dañuy mer dañuy ñëw rek jox ma kayit bi. Mm-hmm. duñu sax wax. Mm-hmm. damay xam rek li ma xam rek noppi. man su ma ko waxee waa seen madame bi moom kanam bi mu ne ma yaay nañ dem kii nii la mel ak man. kii nii la mel ak man. man ko ah mu ne ma mu ne du ma ko sax faale mais da nga siy gis ñoo xam ne dañ lay gis rek kontaan yuuxu la ñëw nuyoo. mais daal jaaxal na ma man nee naa ko der bu ñuul bi moo ñu sonal rek waaye nag góorgóorlu leen rek dina baax incha allah ñu nekk ci àll bi lu man ñaar fukki at ak juróom ba pare toujours ñu bëgg ñu jàppee ñoo xamante bii daal eh, tekki wuñ dara wala baaxuñu wala du ñu ay nit. comme ay animal duñ ñu mës a respect luñ fi yàgg yàgg. duñ ñu mës a respect doom yi fi juddoo sax mhm. noonu lañ leen di def. ah ñoom koy sama ñoom fii mhm. nañ juddoo nag loolu mooy wax ji man mhm. nee naa ko góor góor góorgóorlul de góor góor góorgóorlul billahi tam mu ne ma ah ma ni ko bu leen musa xeeb seen der bi lu leen di wax naa leen seen der bu bon bi ngeen ni roog ay dem àll bu leen ko sa faale loolu nañ koy wax de loolu de nañ ko wax xoolal lii rek léegi moom xale bi ko waxee nag mm. xol bi day tàng xale taxawal waxal la xale bi su fekkee dafa am yaay ju xeesal nag surtout mhm. bu jigéen ba pare ñu di ko wax loolu fay gën a tax mu xam ah. ne waaye su fekkee yaay ji ah. xeesalu waaw ah. loolu du wàññi xale bi dara man suma doom ji mhm. xam nga tax loolu wàññi ko dara man xeesalu ma mhm. man maa ngi ko wan ko sa ñulaay bi fa baax moo tax ma xamee suma bos moo tax mhm. yow yaay ji waroo xeesal noo mata wat parce que sooy xeesal ba pare mu dem école ñu naan ko ngaa ñuul wala di ko def mais ni fa ñuul suñ ko ko waxutit mu xam ko te yow yaa ji nga xeesal loolu fay gën a tax mu gën a bañ ñuulaayam bi wala gën a xam ne suma ñuulaay bi baaxul moo tax suma yaay sax dindi bosam baxee ma ko man ok. waaw moo tax yaay ji war ta xeesal surtout yaay ji ne bi xam doom yu ñuul. war ta xeesal ak tool suy góor la xam sax surtout su xamee jigéen. waaw waaye xam nga lan la yow beneen yoon nga ñëw bu ngoonee nga ñëw ñu continuer waaj waaw dem moo tax incha allah waa kay jërëjëf waay jërëjëf waay kontaan naa merci thank you so much really apprécié naa ko mm-hmm. thank you mm-hmm. guys maa war a dem moo tax boot xale yi fi juddoo sax dañ leen di def loo noonu gi nga faatu kere bu police yi ñëwee njëkk a ñëw si mbiri jigéen bi Fatou ba mu doon wax ak man bugg a jooy ni fii la toogoon nag man fii keroog mooy keroog filmoon naa ko bu tam mooy xar keroog ma xaj attaqué mu ne ma gi nga police ni ñi def nii sàgganee problème bi nii dem ma ne ko ah mu ne ma noonu la ñuy def mu ne ma école bi sax yaa ñii seen doom yi fañ lay tooñ nga wax ñu sàgganee li nga wax jël seen doom yi li ñu wax def ko dëgg di la tuutil mu ne ma gi ñii balañ laa mën a bugg célébrer la ci école bi lu ci bëri mooy nga nekk gune guy dorogu gune guy xeex gune guy indi problème gune goo xam ne tamit doo nekk di pass ay examen di am ay ay A plus ñoom ñu si bëri loolu moo leen di gënal daan gune goo xam ne fay nekk di jàngam ay A plus te du xeex du indi problème mu ne ma soo melee noonu fañ lay soxote ticce yi lay jàngal sax ñoom ñu bëri ngay gis ne kii foo ma xañaane suma xëllëg xam na ne yaay xam liggéey bu gën bosam sax lu ci bëri fii teacher is okay but it's not the best surtout high high primary school high school teacher fi liggéey bi lu luñ lay fay lu li gune yi buñ jàngee ñooy xam liggéey bu gën lu nga xañaane leen loolu wala lan just bañ nit ku ñuul rek waaw gune yi fi juddoo ma ne ko faatu ma ne ko mën na xam yéen ñi fi juddoo du ngeen di sonnee nii de faatu mu ne ma ñun lu ñuy ma ne ko dëgg la gune yi fañ ne sonn na ci school bi waaye yéen ñi fi juddoo xam naa su ngeen magee coono bi dana jeex ma lëng ko yërëm ko rek xamal lu ma koy mu ne ma duy jeex de mu ne ma ñun mutu ñu fi juddoo fa ñuy gën a bañ ndax fa ñuy xañaane ne ñu ngi xamee seen passeport bi comme ñoom xamee seen xam-xam bi comme ñoom ba leen ma ne ko xay na tey di mu ne ma waaw waaw fa ñuy gën a bañ ne ñu ngi xamee seen passeport bi comme ñoom xam seen xam bi dem ak ñoom école def lu ne xam liñ xam ba raw leen fa ñuy xañaane loolu jalos si ba raw sax yéen gan ñi ñëw te xamu leen dara ma ne ko xay na tey di man xamoon loolu mu ne ma waaw man na li taxoon ma indi wax ji moom laa leen di fàttali bala maa dem asamaan saa ngi gën a taw gis nga ndox mi mu gaaw dem sangu ji te dem puus lu taw taw may dem puusi i yi te jël xaalis bi te puus. gis nga ko euh, li te indi wax ji mooy suma askan bi di ma xeex ngir liggéey suma liggéey bi loolu mooy dëgg gi su may wax naan sëy yu bon yi nii gune yi ñuy dóor nii gune yi ñuy tëddoo nii nañ jàngal gune yi ta ba ni ñuy def maanaam li nga xam ne man gëm naa ne moo tax Afrique xalaku te moo tax ñun ñu naqadi deret te soxon te moo tax duñ masa barke ba tax ñuy daw ñëw ci sedd bii tubaab yi di ñu def nii te lii deex ko gën ci gor surtout buñ la wonee ne sa der bi baaxul te yàlla bind la bind borom loolu gor mënu cee nelaw guddi fay joxe dépression ci gor ku bugg boppam te xam valeur am du ko bugg nga rey ko sax mu ko gënal nga di ko xeeb boppam mais ni yaa ko gën di ndi couleur loola indi wax ji nag man xam nga man yéen may commencé di wax dara sama vidéo yi te du ma jekkali wax ji waaye may junj wax ji rek jos pour ngeen xam lu tax wax ji ñëw li tax wax ji ñëw mooy ñun fa ñu ne fii di sonn tubaab bi di ñu fitnaa di ñu def lu ne te fekk ñun suñ defoon suñ bopp nit barke nañ suñ baxoon sëy yu bon yeeg laalante bi di laal ko warta laal ak dóor guneeg tuuti jigéen a gune ñu ba ko pare di jàngal gune yi nag def leen ñu jàngi école te kenn du leen làmbatu kenn du leen dóor ba seen bopp fees ak naqat kenn du leen jàngal naqadal nit gune yi focus jàng jàng xam-xam yu baax xam-xam léegi mu ngi bëri YouTube sax mën nga fee jàngee lu ne kon léegi Afrique développe ñun ñu mën a toog Afrique comme yeneen nit ñi ni ñuy def suñuy tukki ñun lay neex waaye ñëw ci dëkk bu sedd bi ba pare tubaab bi di la def lii. te ñun li tax ñu woon ñu xal ko soo ko waxee dee li tax ñu xal ko mooy suñ programming bu bon bi may xeex te soo ko waxee ñu ne ngaa ngaa ngay xaste yow ci problème rek ngay focus. dem ca waxi laalantee nag di tàppote dem ca saaga ndey yaa kaaya di tàppote loolu laa doon complain nag di jàmbatu loolu nag ba far nag wax ji toll fii ma di leen wax ne xoolal ñun li ñuy daj bitim réew xoolal tubaab bi suma dëkkandoo bi lu ma doon def loolu moo indi wax ji pour ngeen xam loolu ne loolu moo indi wax ji léegi jërë ngeen jëf ngi dem ba subaa jàmm si beneen entraîné vidéo bu dee entraîné naa suba mën naan du ma ne suba gannaaw suba ndax léegi tee ma gis ngant su ngant gi ñëwee may noppaliku ñaari fan you know mën naa mu gis ko tey wala suba doon nu mu ngi wane sign yëpp su ñëwee du ma entraîné su ngeen entraîné xam su ma su ngeen ma gisul xam leen ne loolu la su ngeen gisul ma entraîné waaye entraîné bi ñeenti fan wala juróom ci semaine bi nu ma fu ma manti jaar ma koy def waaye nag su ma gisee ngant duma ko def ñaari fan yooyu may noppali ko du neex a exercise ak ngant gi waaye xam ngeen lum do nañ leen gëm suñ bopp te wax dëgg te gi nga ngànt sax boo ko waxee ñu naan moom du sutura boppam te su paree su ngeen paree dem ca waxi laalante nit ñi duñ sutura seen bopp ba pare gune gu leen wax nit ku leen wax ne ba ma duggee gune fañ ma tëddoo du ngeen ko faale yéen du ngeen di faale sax gune yi leen di wax ci vidéo yi ne leen fañ ma tëddoo ngeen mel ni seen yoon néew ci gune yi ñuy abuse du ngeen arrêté wax ji sax ne yéen ñiy tëddoo gune ba leen ko lii ñaaw na lii fay joxe stress fay joxe dépression fay tax borom foog ne tëddoo gune is ok su borom xamul ngor fa koy def pour nit ñi ñaata junni nit ñi lay seetaan xam ne tëddoo gune baaxul ñooñu ñëpp ñu lay seetaan ñëpp xam na ci tëddoo côté gune yu lay seetaan ki dugg ci vidéo bi ne la fañ ma tëddoo ma doxee gune sa yoo néew ci wax ji sax soo falal ko wax ja mais ni nothing is happening seetaankat yi yëpp continuer di ree def wax ji comédie laa illa askan bi a feebar ta bon te bugg lu bon te mën a seetaan lu bon te nag seen jikkoy naafeq ji li ñuy def mooy lu ndaw rek bu ko nit defee ñu jóg di réeku di kaa borom hee yow nii yow naa ñëppay tàppote di séddoo lu am fayda bu ko nit waxee ni def naa ko def nañ ma ko lu bon ta fayda nga war a xëyee foofu war a foofu nga romb loolay wéy soofal ko loola soppaliku ko comédie mooy askan bi dégg ngeen ko waaye yàlla baax na man sama maas yi moom duñ di wax réalité rek lii lu ko jar réew mu réew moo ne nit ña fa ñuy dee ci géej gi niw niw yi jóoru pour tukki xoolal lii rek xoolal bu yàggut niw yi yëpp jóoru doomi Gambie ak Sénégal ak yeneen doomi Afrique pour ñëw bitim réew bu yàggutoon dooy xoolal li jigéen ak góor xoolal li xoolal bu yàggutoon dooy gaal gi te gaal goo gis nag xam na geneen gaal goo yëgut lii yëpp nit ñi di ko def pour ñëw xam xaduna te boo ñëwee fii si ci plaine sax doo xam jàmm bugguñ la fi comme yow na ngay bañee ay ñag sa réew aka bañ ay sénégalais yu bokk ak yow ne yaay Sénégal sénégalais yu bëri seen benn waajur euh, gambien yu bëri seen benn waajur sénégalais la comme man ak keneen ak keneen ni ngay bañee ay sénégalais ay ñag ak ay polsa réew surtout tubaab yi nag nga xam ne ñoom fañ la yàgg def jaam te di la gisee comme jaam ba tey te te ñoom ñu bëri xamuñ yàlla faale wuñ yàlla liñ xam mooy nga def sa bopp nit liggéey xam li nga soxla tax fañ gis na yow wéroo moo tax mënoo liggéey def sa bopp ni respect sa gune yeeg sa jigéen ñi jàngal leen def sa bopp ni fañ xam ne ngay dóor nit ñeeka tëdd ak gune ka ngëñ ñi ngëñ ñee nit ñi ba nit ñi soxot te ñàkk te naqadi dara moo tax ñu yab la te bañ la fañ wax ne ñuy xeet wu bon lañ te mënuñoo yar nit mënuñoo loof nit fañ naqadi dara te dundu métti te soxot te bàjjo kenn soxlawul leen far ñàkk boole si ku ñàkk fa yomb a xeeb ah léegi ñun buñ waree dee ci yoon wi pour ñëw fii bu ñu ñëw fii jaralee loolu foogoo kon ñu wax lu tax ñuy daw bay dee daw bay dee du caaxaan lu la jaral daw ba dee sa niw bi ne sa ndelas si yoon wi nii lii du caaxaan xoolal lii rek xoolal lii rek bu Afrique xalkoo bam jaral ñu lii foogoo kon ñu mën a wax ci xalkare gi mu dakk ñu kaa xalkare gi waaye déedéet di kaa ay laalante rek di kaa ay saaga ndey di susal gor yi ba ñuy xaru rek ku taal téléphone am di wax ci xalkare gi surtout suma maas yi ñu ne fa dof di presse dem ca saagakati ndey yaa kaakat ya ne ñooñu ñooy nit waxkati laalante yeeg saagakati ndey ñooy nit ak kaakat yi yow miy wax ci suñ xalkare gi waral lii nee nañ jàngal gune yi école te ba dóori bi tuutil jigéen a gune tuutil jigéen a gune bi nit ñi def jàngal ni ñi soxot moo tax ni ñi suñ neexee ci nguur gi di la soxote yaa leen jàngal soxot ak sàgganee nit ak lu la neex def lool mooy dëgg gi moo tax Afrique du mas a développe feeg baxu leen fi ngeen teg jigéen ak gune Afrique du mas a développe danañ yàgg di daw tubaab yi di ñu yëpp danañ yàgg suñ niw yi di lab-labi danañ yàgg sëye kuñ buggul suñ ciy jëlee feebar ak xàq sax jos ñun ñoo suñ aneen bopp yee xendu leen jàmm beneen vidéo incha allah bye